salaamaaleykum mbokk yi seetaan Tektal TV nuyu nañ leen ziar leen ñaanal leen sàkku bu baax ngeen di ñu ñaanal di am mbégte ak kontaan ci ànd benn ànd ak ñun di wax ne tey màggal bi gis ngeen ñi ñëw fii ci kër Cheikh Bara Ndiaye borom def gis Cheikh Bara njaay bi nga xam nag euh, xam-xamam defe naa nangu ngeen ko li ko yàlla may tamit nangu ngeen ko ku nanguwul tamit di nga dem ba gis ne nangu nag force la ndax ku dégg waxi nit xam ne waxi nit ngay dégg ku dégg lu yanu maanaa xam ne lu yanu maanaa nga dégg ku dégg xam xam ne xam-xam nga dégg ku bëggul dégg dëgg nag lu la neex nga dégg ndax magum jëm mu toog ni gisuma jant bi moom kenn mënu ci moom dara Cheikh Bara Ndiaye borom def gis euh, bis bi xat lool nit ñi ñëw di la siyaare ak saafonte bi nga bir ñu sa bunt ndax cir bun am ci yow euh, ñun ñaar ñu doon benn tam yàgg lépp rafet wax dëgg yàlla màggal sa mbir dañ ci teew mu jaral ñu lu ne nga jaral ñu lu ne ndax yàlla nañu boole ci benn lan daal euh, moo tax bis bi lu xat-xat day doon suñu yitte euh, lan ngay nuyoo ñi lay seetaan ci Tektal TV. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi lay nuyu sëñ Seex di nuyu waa Tektal TV yëpp nga xam ne fii moom samay soppe ñoo fi nekk ak samay xarit samay am di jàmm waaw yi ngeen may nuyu di ko jaara ci Seex Taalif yëpp maa ngi koy jot maa ngi koy dégg di ci kontaan bu baax di am mbégte nag bu baax a baax. ci saa boo ma dékkee sa micro euh, ci ma war a waxtaan ak yow euh, parce que tey xëy na micro yi bari nañ ci sama wet de waaye micro bii yemalewu ko ak benn micro waaw parce que démb moo tax voilà parce euh, jaar-jaar bi daanaka mën naa wax ne fii la ko yàlla tàmbalee bi ci des it mooy waxtaan ak yow façon waxtaan bi may waxtaan ak yow lu baree bari lu ma ko mën su ma toogee keneen loolu nag xëy na déggoo buñ déggoo la wala question yi ni muy ñëwee ci man wala relax bi ñuy def buñ toogee di waxtaan loolu sax nit ñu bari seetlu nañ ko ne ma yow sooy def interview ak am na koo xam ne ministre bu Macky Sall la hmm. ministre bu Macky Sall la euh, day sama xarit di ma déglu lool lu bari dafa may tooñ keroog bi ñuy waxtaanee ci suñu vidéo bële hmm. ma doon wax naan góor day xam jigéen hmm. ak nit du def lu la sa yaay digal nga ne sama yaayam ma ko wax boo koy def doo doo tekki mu naan ma yow seetlu naa ne sooy waxtaan ak seex Taalif da ngay am ay wax yu am solo yoo xam ne doo ko mën a def doo ko def ci yeneen waxtaan yi daal ma ne ko est-ce que ma dul li ma dul waxtaan ci Cheikh Taalif politique rek moo moo la arrangé daal bëgg may wax ci léegi ay affaire sëy yeeg takk yeeg mu naan ma voilà loolu nga war a def nag te bàyyi <laughs> <laughs> ma voilà loolu nga war a def bàyyi politique bi quoi léegi da ngay bàyyi politique bi tey waxtaan ngay waxtaan ak Cheikh di waxtaan ci tay sëy takk yi da xam société bi mm-hmm. ma ne ko maa lànk <laughs> yaa lànk wala ma ne ko maa lànk politique lay waxtaane mm-hmm. maanaam noonu politique moom boo koy wax li ngay wax arrangé wu waaye nag loo booy wax ci affaire adduna moom mm-hmm. li ngay wax daal dafay dafay dafa daf may daf may convaincre lool daal voilà loolu nag day wane rek ne euh, xëy na modd waxtaan bi am fii euh, fii rek la am moo taxit ne wax dëgg yàlla say abone tamit euh, fii rek la am waaw di nga ñëw ci benn chaîne nga gis nga def nga am vingt mille abonné vraiment nit ñi ngay xamanteel fii ci sa chaîne xam ci xam benn nit ci sa chaîne dafay gën nga xam fukki nit ci beneen chaîne waaw loolu moom ñun ñi nga xam ne dañ fiy bàyyi suñ numéro Euh, émission bi di am continuité mooy am woote téléphone ci ni mu Cheikh Taalif laa la seetaane nangam ak nangam ñi ngi fiy dajeel euh, daal ay nit yi qualité lañ kon loolu day wane na seen bi vraiment ah, ay cuuna seetaanuñ ko ay njàccaar ñu dëgg ñoo koy seetaan euh, tey ay nit ñu ñu ñu ñu am crédibilité daal ñoo fi nekk waaw loolu moom dama la koy seedeel. sàmm ko bu baax tamit. te yéen tamit wax dëgg yàlla wax boobu nga wax ci góor bu déggal ndeyam maanaam dafa doon yoo xam ne que yëpp dafa doon lu nit mën a teg bët na lii njëriñ la moo tax tamit docteur bi wadd bii euh, amul looy def ci internet dafe naa lu koy rëcc ndax lan xam na njëriñ bi nekk ci say wax man tamit xam naa sa njëriñ bu may dugg ci TikTok bi amul benn vidéo seex baara bu may gis lu ma toog seetaan ko ba mu jeex ma aimé ko comprends parce que damay gis ne man man man Cheikh Bara boo ko dégloo juróom minute mën ngaa dégg loo mësul dégg sa àddina loolu nag da lay leer dum njàng loolu moom dum njàng ak may la xanaa ma loolu d'accord ne ak may la. waaw loolu mooy xikma ma maanaam nit buy jaamu yàlla lu bari da koy am. wax boo dul mën na la mën na laa am. man nag xëy na ñaar yooyu mën na am ma ci benn waaye daal xëy na tamit amu waaye daal nit ku. sëñ Fallou am na ko lii ma tontu nag sëñ Fallou ko tontu woon da daan def lu ko nit wax rek mën na laa tontu loo xam ne nii euh, maanaam day mel na daal li tontu li moom daa tege woon rek di ko xaar. waaw loolu nag sëñ Fallou ne ko ñaar rek a koy jox nit. mooy jaamu yàlla lu bari ba yàlla tijji sa xol. wala ngay wax dëgg rek dëkk ci wax dëgg day dem ba da am hikma waaw man nag xëy na léeg-léeg ma kii tuuti rek defaat nii ñëwaat waaye. yëgaat ci péage. <laughs> Ah, waaw xam nga dëkk bi moom <laughs> Sénégal moom ku ne la wax lu ma wax dëgg la. Euh. loolu moom noddukat kuy nodd daal moom li ngay nodd moom loolu wax dëgg la waaye boo noddee ma noppi. Mm. jëlatuma ci garanti moom. <laughs> kuy nodd daal moom temps bi nga nodd waaw. diggante bi nodd geeg bi ngay pare moom li ñu fi wax lépp dëgg la waaye bu jàllee. Mm. ma kenn garanti réew mi moom. Mm. faaw léeg-léeg nga nekk léeg-léeg nga nekk ci kaw péage bi ñu wol nga am maa ngi nii ci koñ bi. maa ngi nii ci <laughs> maa nii di gaare fekk yàgg. masque ci àddina waaw ci élection yi jàll. aw wala wala fen bokkul de wala. <laughs> élection yi jàll daa benn waay bu ñëw nee ma ku may wateel sëñ Baara ndax man daal gars yi daal xool naa ba xool hmm. waaye daal ku may wateel ma ne ko ma ne ko foo dëkk mu ne ma benn tali <laughs> ne ko ah benn de am naa fa sama ki ki ki war a nekk député uh-huh. ki war a nekk député sama xarit la de man sax Baadu xam ne moom laay waxal sax. Uh-huh. mën na ko sama xarit la léegi nag damaa bëgg nga wateel nga woteel nga wateel euh, nga wateel daal yeewi ndax boo ko wateelee kooku moom sama xarit la mu nekk député <coughs> mu ne ma ah ma ne ko waaw mu ne ma euh, kan la ma ne ko diw mu ne ma mo kooku keroog mu ñëw taxaw ci sama place bi di ma com di ma di campagne jox may flyers ba pare taxaw ci place bi am ko ko woo ma naan ko maa ngi ci place bi de <laughs> ma ne ko yow ma naan sama xel kii xanaa bëggun ma woteel ko yow war yow joxoo ko sa flyers bi di lii ma loolu mu def doo ko def mu ne ma ankay ma ne ko yéen a moo tax nga war ko woteel ñëpp yem du ko ma ne yéen a ñaar ñu yem moom moo tax woteel ko rek waaw ah, gars yi xam nga dañuy mel niñ mel ba noppi bëgg xam nga Sénégal moom kenn wóoru fi ba noppi naan ko wër lañ bëgg fal ma ne dem leen dem leen Mauritanie jëli ko fa. <laughs> li daal ñëpp la réew mi daal bu fekkee kenn wóoru fi ko kenn wóorut ci réew mi ba noppi ñu ne ku wóor lañ bëgg a fal léegi nañ dem Mauritanie rek jëli fa ku wóor <laughs> kon na ngeen comprendre ñuy muñ défaut yi kon daal léegi la nga bëgg waaw non xam nga réew mi moom bu déparé daal mën naa dem bu déparé waaye réew mi naa déparagul waaw koo fal mm-hmm. maanaam boppam lay lijjanti moom loolu moom moo moo am moom boppam lay lijjanti ak njabootam. wallaay lasim chef de quartier sax koo ko fal moom nu mu ci lijjanti koo lay lijjanti. Hmm. waaw génn naa ci duñu wax gars yi nañ ci génn de génn naa ci ngay ak diw génn na ci. waaye doo dégg mukk hmm, génnee nañu ci. waaw fii xalifa général sax bu ñu la ko falee sa waa kër jàpp ne dañ cee war a génn bala ngaa wàcc. waaw te xamuñu ne maanaam mbir mi mbirum diine la ak yooyu loolu loolu ci dañ ko judduwaale ci ñun la nekk. waaw waaye nag hmm. am na luñ judduwaale woon lu baree baree baree bare te xeex nañ ko ba mu dañ waaw waaw xeex nañ ko ba mu dañ Sénégal ah, Sénégal bu njëkk ba ndakaaru gi moo gënoon a ñàkku gan ci àdduna mhm. Dakar bu ñu laajoon Dakar lu mu gën a ñàkk neel gan waaw daawuñu gis gan ndax ñoom dañoo nekkoon ci presque île mhm. mooy daanaka boo jaarut yoonu tëngéej bi dugg dugg fa doo fa doo amut kii te Dakar amut lu fi nit daan wut mhm. maanaam boo daan wut jën ndar ndar am ndar am na capital am na jën looy wut dañ naan ndara ngi ci poos maanaam loo daan wut bu fekkee lu jëm ci màcc ci géej ndar nga jëm lu màcc ci lébu ndar nga jëm parce que lu dakaar am ndar am na ko te ndar am na lu dakaar amul dakaar daanaka daawunu am euh, ngan dégg naa nag ba fa sëñ Touba ñëwee ca 1995 dañ ko ne woon dañoo bëgg nga ñaanal ñu gan mu ne tibb leen suuf jox ma waaw ñu ne lu ngeen bëgg ñu ne ñu ne ñu ne ah ñun daal gan lañ bëgg ay gan ñun daal sëñ bi dañoo wéet lool boo xoolee sax lébu yi ñu ngi tàmbali woon xam nga boo xoolee langue lébu yi ñu ngi tàmbali woon sax di créer beneen langue bu bokkut ak olof. Mm-hmm. lébu yi daanaka seen langue bopp lañ yor. waaw seen la waaw 1895 xam nga seen boo xoolee ñoom daa nangam ak. awlaaka nangam kala lekk mab ceeb ka def nii loolu la ñuy waxee ñoom. Mm-hmm. loolu dañoo demoon ba commencé di génn parce que dañoo ber woon mën nañoo toog lu yàgg kenn du leen rax. Mm-hmm. loolu nag boo fi ne boo tëjoon ay nit ñu bari. bu buñ génnee fi ne Sénégal boo xoolee ni ñuy waxee nii boo indi woon nit ku faatu woon ca 1900 bokkatuñ. ñun ñu ngi naan wëy xam nga yaa ma gën a xam quoi waay waay bi noonu la demee quoi waay waay tranquille xam nga mën ngaa wax ba pare kenn du xam li ngay wax waaw saay yaa ngi cool waay waay waaw demee demee ñu kii ko waay ah xam nga rek no xam nga yaa ma gën a xam quoi dëkk moom mooy loolu quoi léegi loo bëgg wax <laughs> pourtant ki xam na ko loolu nag noonu noonu la affaire bi di évoluer làng waaw ah. <laughs> noonu la langue ne évoluer ah non waaye sa waay day koy mettil waaye ah moo xam nga rek gars yi moom dañuy kuyal waaye kuuluñu quoi dañuy jaay jàpp waaw ah. ah, jaay jàpp nii xam nga di jéemal mettil affaire yi kërëb kërëbal nii xam nga rabal rabal non non non comme noonu ma non non dama doon doon am dib non non li may wax nii noonu la dëkk bii waxee jëmal jël benn booy fii rek booy bu am vingt ans nga jox ne ko màggal gi naan waaye màggal gi de gaañ xoolal mooy kuul na de waay mi kii de ñu ngi noonu kërëb kërëbal de xam ga rek waaw sant sëñ bi waaye xam nga rek mooy loolu moom yow ma gën a xam quoi. barke Baye Darou waaw waaw barke Noré ni nii xam nga maanaam loolu loolu. loolu boo yeewoon paa bu dee woon quatre-vingt quatre mille ca quatre boo ko waxee du ko xam pourtant da ngay toog nii mu ne ma yaa ma gën a xam da ngay xam li mu wax mm-hmm. cool da xam li mu wax mooy loolu da ngay xam li mu wax waaye bu ko mettil waaye gaayen waaye xam nga waay gaañ waay ah xam nga dangay xam li mu bëgg a wax ko léegi loolu mooy langue lébu yi nag dañoo ne woon ba tuub ba commencé woon di former langue léegi nag après dégg naa nag sañ tubaab bi mu ñëwee ñaanal leen léegi nag gis nga ko far garña nag gan ñoom amuñu gan ay gàng lañ am léegi Dakar ku dem dëkk mm. ku dem dëkk léegi nag gis nga Dakar amul maanaam lébu yi amuñu woon gan mm. sabablu nañ ko ñaan ci mu am waaw bu njëkk ba fii mm. euh, ay tubaab fi nekkoon. maanaam di ñu dicté lépp. ñoom wal joojaak ñooñu xeex ñu am suñ petit indépendance. mën nañoo xeexaat amaat indépendance. bu njëkk ba ndakaaru ab euh, euh, tey bi ngay ñëw ndaka fii route nationale jaaroo fa autoroute à péage nga jaar Abdoulaye Wade ko def mag Macky Sall ñëw dolli amoon nañ benn aéroport boo xamante ne boo ko xoolee da naan doo xam lu muy nural léegi am nañ beneen noonu ñu koy defee bu méngoog jamono noonu ñu koy defee noonu lañ mën a soppee lu baree bëri. ci ci ci jikko yi te boo xoolee jikko yi tamit mi ngi soppiku. Mm-hmm. parce que élection yii jàll. Mm-hmm. élection législative yi. bi ñuy samp bureau assemblée. Mm-hmm. lu ne xalaat nga ko ba mu des Macky Sall dina jënd député. voilà lu ne maanaam te pourtant Macky Sall am na njëg bëgg naa jënd waaye comme jënd la gisut. comme jënd la gisut ah, te loolu ñu juróomi at yi rek ci la changé. parce que léegi sénégalais yi dañoo am whatsapp am tiktok am kii bis boo fi def def loo ba trahir leen. dinañ la yan jumaa ji te da ngay xam ne lii jëru ko waaw <laughs> Pape Diop gis ko gars yi dañ koo yan yan jumaa ji yan ko ko yan ko ko ba ba xam ne da mujj sax xam ne mm-hmm. euh, da ngay xam ne lii jëru ko woon daal waaw jëru ko looloo tax nag léegi sénégalais mm-hmm. pour ngay sàcc mm-hmm. dangay ngay xalaat ne bu ma feeñee adduna tukki suñ la bëggee jënd da nga naan buñ ma jëndee adduna tukki looloo tax système boobu jógee na fi li fi jëlee loolu nag parce que bu njëkk ba koo mas a gis muy wax bu contrepoids pouvoir ba ci boppam moo ah kii daa am lu mu bëgg daal lay waa saa loo bëgg nga ne ko passeport mu jox la nga dem sa yoon loolu rek moo fi amoon léegi loolu jóge na fi sàcc xaalis ah. ñii ñii na boo ko kenn di kaajar kaajar yi léegi am na yenn sàcc yoo xam boo ko fi sàccee gaa yi weer la boo sàccee da kay nëbbu sax léegi dégg nga ah. boo buñ boo amoon benn principe boo xas ba wax nit ñi nekk ci mm-hmm. nit ñëw bëgg laa jox xaalis na la l'essentiel principe. pour nga def ko difficile na léegi. lu ñu def loolu nag. mën naa dem ba indi lépp lu ñu bëgg. kan moo def loolu wala lan moo def loolu. non loolu mënoo jékki-jékki ne diw la. environnement la. Mm-hmm. amoo woon TikTok am nga ko. bu njëkk ba RTS la nit mënoon a dem di wax amatul léegi dangay ngay dem wala fa dem fii dem fii loolu noonu. Mm-hmm. télé yooyu am am na lu muy def ci yow. Mm-hmm. nga jékki-jékki ku ne am sa compte YouTube. yaa ngi nii am nga sa télé léegi. kii am kii am yi ñu ciy am na lu muy indi. Hmm. comprendre nga euh, nit ku jékki-jékki am principe ci suñ kanam. Hmm. ku mel ne Guy Marius Sagna hmm. ku mel ne Karim Xurum Xaq. ku mel ne Dame ñooñu bu ñëwee génnee ay principe ñu gis li leen askan wi di fi leen askan wi teg maanaam boo amee principe lu mu gën a lu mu gën a kawe boo ñàkkee principe suufee gi noonu lay mel. loolu noonu luy ñëw la rek. li léegi nag chaque génération boo mën a gis ci àdduna dañu am seen leaderu bopp waaw. fi nii maanaam jamonoy Abdou Diouf ku mel ne Abdou Diouf rek booba paa yëpp dem jàngi xëy liggéeyi bu xëyee jëndub journal liir ko si luisee bu timis jotee ñu fay lamp yi ñëpp dem tëddi après Abdou Diouf a fi nekkoon journal RTS ñëpp seetaan ko Abdou Diouf a fi nekkoon biñ jekkee jekkee nit ñi léegi bëgg a tukki ah. ba a am xaalis damaa bëgg a def sato ñu am président boo xam ne Ablaye Wade la tukkikat la wutkatu xaalis la indi ci dëkk bi ci sa ci nga njëkk gis sénégalais di dawal ay oto cent millions ci nga gis sénégalais jënd jet privé. comprendre nga. ñu commencé léegi nag am xaalis bëgg a noos mu tabaxal ñu grand théâtre comprendre nga defar. ñu jógee foofu léegi continuer euh, Macky Sall bi mu ñëwee fekk na tamit nit ñi. Euh, yeewu nañ. am nañ xaalis bëgg nañ information. mu ñëw moom tamit teg li muy teg nekk ci. gis nga lum teg lum teg non Macky Sall maanaam teg na ne li mu teg nag taxut man xam nga. <laughs> da nga xeeb lim teg wala dafa ëpp. non non da nga ko moom il faut mu teg mais xëy na bu jeexee laa koy mën a wax mais en tout cas. defal nañu ay infrastructure yoo xamante ne tamit maanaam vraiment ñi ko fi jiitu woon daawuñu ko def. Mm. comme tey façon stade bi mu tabax. Mm. donte nag léegi. moom problème am mooy ñu ko dimbali la amul mooy stade bi bu ko bëggee tabax waroon nañoo étudier fi mu suuf si mu koy def mm. étudier milieu bi parce que man d'accorduma jam ñaajo nga fay def stade bu seer boobu ah, Léopold Sédar Senghor mm. stade bi toujours day dund te day jur xaalis mm. mais boo ko defee kii Amazon yañ defaroon Brésil yàqu na parce que dafa sori Gabon bi ñuy organiser coupe de am coupe d'Afrique bi <laughs> euh, coupe d'Afrique ba seen stade bu sori ba yàqu na stade bu sori nit ñi rek day teel a yàqu mais stade bi mu defar ñun daawuñu defar stade yooyu. comprendre nga waaw. Ah, Dakar Arena bi mu defar ñun daawuñu defar Dakar Arena bu mel noonu. Mm-hmm. Euh, terre. Mm-hmm. daawuñu am terre boobu. ah. terre mu gënoon fi mu dem gënoon sori rek ci gën a baax. bu gënoon a sori day gën baax mais en tout cas dugg ci terre dem toog mu ne tini nit. xam nga nga dugg xaw a mel ne ku dugg ci avion noonu. loolu. yokkute la euh, waaw yoonu yokkute andil nañu maanaam fekk na xam naa nit ñi bëgg nañ léegi. Euh, bëgg nañ daal maanaam namm nañ léegi xaw a mel ne ku nekk Europe te nekk Sénégal léegi Macky Sall andi na loolu boo nekkee ci biir stade bi day mel ne yaa ngi stade mm. boo duggee ci terre bi xaw ngaa ñam tuuti Europe tuuti rek moom da bañ a xool côté caaro yeeg yooyu rek. <laughs> waaw caaro yi bu <laughs> boo xoolee non non boo boo xam nga boo duggee da nga yaa ngi France mais boo xool caaro néegi néegi dëng yeeg yooyu moom. <laughs> mais Sénégal garabu ndef maa yi est-ce ko. tojoon rek ngir indi fi yeneen garab boo fotow di nuru yàgg daal def na yooyu léegi nag nit ñi nag dañoo jëm ci ni ma ko jàngate nag quoi mooy dañoo jëm ci léegi nag maanaam nekk seen kilifteefu bopp quoi mm. voilà léegi yemuñu ci mel na oh, yem def noonu Tchad dafa jékki-jékki def noonu Rwanda jékki-jékki def ko Centre Afrique jékki def ko comprendre Sénégal dafa jékki-jékki def ko comprendre nga mooy mooy mooy mooy réew moo xam ne self-made man lañ quoi mooy ñun la quoi bu baaxee ñun la bu bonee ñun la waaw nekkatuñ ko nga xam ne dañuy jëm bootu ci ay nit ñu ñëw duñu exploité hmm. soo xoolee léegi jarul ngay jàng jarul ngay def dara boo amee discours bii sénégalais yi bàyyi la xel mooy man li ma bëgg ci yéen laa ko yaakaar hmm. su ngeen ma falee ci yéen laa yem voilà ku ko teg rek maanaam di nga am wàccuwaay ci xolu nit ñi voilà léegi bu njëkk ba da nga naan maa maa génne woon parti sàngam maa génn nangam loolu jeex na ci politique mm. booy xool a sénégalais soxlaatuñ loolu mm. yow léegi da ngay ñëw ne man sàccu ma mm-hmm. sàccu ma maanaam jóge jóge parti socialiste mm-hmm. léegi bañ a ko gën mm. te bu njëkk ba li xëntawoog yëpp mooy ay fee laa bokk mm-hmm. man euh, kii laa bokkoon PS laa bokkoon ci ndawi PS laa bokk ñun lool lañ yaakaaroon ne ku jégewul PS mënoo yorum réew mm. léegi nag ñun dañoo gëm ne nit ki dangay ngay bañ a sàcc am dignité voilà sénégalais boo léegi boo xooloon ci ginnaaw huu ñun Touba gi nit masaan dem Europe maanaam dañ koy yëgle comme kom comme tàggee <laughs> diw tukki dem na xanaa gisoo photo yi dugal na photo yi la ilaha dugg na maanaam ñun loolu lañ daan wax boo amee oto portable portable portable ci ginnaaw nii tuuti rek boo masaan am portable xalaatoo ko denc sa poos mm-hmm. Mm-hmm. waaw da ngay téye parce que wax nit ñi ne man am naa portable. a ndax daara jee taxoon. waaye. waaw doose naa nag ndax mm-hmm. nga ne nit woo ma fekk kenn woowu la. Uh-huh. da nga naan ko dimbali ma ngir yàlla. bu <laughs> demee ba ci 28 bi ma taxee foofu la. non non nit la soxla rek. Uh-huh. lañ tolloon quoi am matériel ñu naw la. jamonoy Ablaye Wade mm. ku am matériel nit ñi jaamu la naw la mm. ñu jékki-jékki léegi nag sénégalais yi boo fekkee yaa ngi jàngat société bi mm-hmm. nawatuñ borom matériel quoi mm-hmm. amal oto faale wuñ la amal kër gi faale wuñ la mm-hmm. mais amal principe ñu gëm la voilà moo tax léegi gii Marius Sagna am wàcc waay ci xolu nit ñi comprendre nga Karim Xurum Xaq wàcc léegi boo xoolee sax rappeurs yi ak waykat yi niñ doon sonne ci clip nekk di clip boo xam ne ki ngi àbb kër gu lix def ko ci c'est pas l'appel quoi soxlaatuñ ko mm-hmm. dégg nga sénégalais léegi lix xëccatu leen mm-hmm. léegi dafa am leneen lu leen xëcc mooy ne nit ki nekk nitu principe ñu topp la mm-hmm. boo xoolee kon nag jikko yaa ngi yàqu mais benn côté jikko yaa ngi baaxaat léegi. non jikko yi mënoo wax day baax day avancé rek comme oto. àdduna moom day daw rek di def nu léegi nag ñun. boo nekkee ci àdduna da ngay jànkat àdduna bi rek xam nga tey ku toog jëma seetaan da nga ne ah vraiment kii mm. li mu wax nii dëgg la ko sénégalais yi lii moo gën a nekk ci seen bopp bi léegi nawatuñ ko dem Europe demal Europe moo ko dem Bambey lañ yemale mm. seetlu ko bu baax seetlu nga ko bu baax diw dem na Europe barsaak Bambey lañ yemale mm. léegi tabax ak kër ak bàyyi lañ yemale bu njëkk ba boo masaan jóge Europe booy ñëw ngan gi day mel ne maanaam adduna ju tukki kenn ku ne naan gis naa ko xaw naa am yaram gis nga dàll yi gis nga simis bi eh, sa waay changé na léegi de comprendre loolu lañ daan wax bàyyi nañ ko boo masaan jógee màkk boo ñëwee da nga naan paa yëpp du ngeen dara maa dem màkk léegi dem màkk ak dem xombal gars yi xàmmeetuñ ko mm. dañ ko jàppeeg jaamu yàlla dem jaamu yàlla jeex na mm. noonu et cetera et cetera mm. loolu mooy adduna Sénégal noonu la ñuy doxee li ma wax nii moom man loolu laa jàpp ne ma ngi siyaar baax loolu laa jàpp ne moo nekk ci société bi quoi <coughs> léegi nag ñii ñu mel nii il faut dañu am ay njiit yu mel noonu. njiit yu mel loolooy tax. ah, ah? loolooy tax Ousmane ko mën a ñëw. Hmm. amul daayira bu mag bu mu bokk bokkul ci tarixa bu rëy bokkul ci kër gu bu rëy bokkul ci famille bu rëy. Hmm. ñëw ne dama soxla réew mi. nit ñi déglu ko nangul ko ko. dégg nga. Hmm. te loolu euh, faraluma ko mais moo ko njëkk a def yaakaar naa kenn du ne day fen maanaam moo njëkk a jóge ci lànge ki jógewul PS. jógewul PDS. jógewul AFP tegu fi diplôme yu nit ñi yorut hmm. tegu fi ne parcours sangam maa nekkoon ministre nangam maa xam loolu yëpp seen maa nekkoon ministre nangam maa nekkoon nangam maa nekkoon yoroon bureau politique nangam loolu lépp amul benn carrière politique bu mu ñuy tegal hmm. boo xam ne maanaam moo ko def hmm. amul benn carrière ci wàllu njàng lu mu teg loo xam ne moo ko def amul njub daal njub amul benn dërëmu xaalis bu mu lay présenté wala immeuble bu mu tabax wala dara maanaam daal man daal maa ngi nii jub naa loolu jàppoon nañ ne loolu mënta nekk Ousmane Sonko ko njëkk def. soo seetloo bi mu ko defee ba léegi. ci la bugaan ñëw def ko. ne man ñëw naa jub naa man tamit taxaw. ku mel ne Pape Djibril doog mën a liir ñëw. yaa ngi dégg ku mel ne Abdourahmane Diouf ñëw Thierno Alassane Sall ñëw. Ciss Deme ñëw. comprendre nga. Euh, commissaire euh, capitaine xaw ma cap cap capitaine Dieye. ñëw teg boo xoolee barki démb gis naa Cheikh Omar Diagne. ñëw teg ñoom ñëpp. maanaam ci Ousmane Sonko lañuy liir. Mm. boo xoolee. Euh, ah. sax mi ngi nu Ahmed Aydara. boo xoolee bi mu ñëwee. def politique. Mm. réussir ko nekk maire. laataa six mois gis nga Pape Djibril ñëw. adduna noonu dong la. Mm. dafa am kenn nit ku nekk da liir ci situation yi rek dem. voilà Ahmed dafa jóge ci télé jóge ci rajo. Hmm. ñëw nekk meeru Géejawaay dafa def loo xam ne kenn mësu ko foog ne loolu mën naa nekk. Hmm. bi mu ko defee teguñu ci 6 mois rek Pape Djibril même bu fekkoon loolu nekkoon na ci xelam. Hmm. léegi bu gisee Ahmed réussir ko rek day am courage. dafa am ñuy wax ne Ahmed Aïdara boobu pour mu doon euh, maire ci barke Sonko la ginnaaw yàlla loolu da nga koy dëggal wala da koy wet. waaw xam nga Sonko pour mu fal nit ci barke Sénégalais yi lay doon. loolu loo koo gis rek am na ci barke loolu Ahmed Aïdara nangu na ko. wax na ko. p PDS seen 24 députés yi barke Sonko la. Hmm. yeewi askan wi riir mi barke Sonko la. Hmm. ah uh-huh. Ahmed Aydara. Hmm. barke Sonko la toogee loolu. moom tolluwaayam loo ci wax gars yi dañ koy wan ne euh, dafa doon dem ca PS mel na dafa soxla bureau kii bi pour xëccoo ñu mun a danoo yàq deram ne da doon diil ak ay euh, waa PS waa PS génn weddi moom mu génn weddi. bis assemblée bi ñëwaat mbir yi mel ne lu dëggaat ñu ne. dafa dem xëccoo ak Barthélémy Dias pour doon candidat te bu ñu doonoon benn candidat mën na gën a kii ba ñenn ñi commencé di ko génn ci biti daal fat gën ko fatoon jàppe ko patriote commencé image bi di yàqu loolu lan nga jàpp ne ay mbiram tolluwaayam boo ci doon xalaat lan la Ahmed lim def defar yàq la. non man daal jàpp naa ne politique moom bu ñu ci dindee bëgg poste mu jeex nag. waaw ku wal mbooloo tudd dëkk ku nekk kuy politique daal am nga loo bëgg. Mm. léegi nag ni nga koy bëggee nag mën na laa jariñ lu bari mën naa laa yàqal lu bari. voilà parce que nag jàpp naa ne man bu doon mën man lu ko wax laay wax ak Khalifa Sall. lu ñu waxul waxuma ko daal suñ ma teree dara dama koy bàyyi ngir ñoom ñoo ko tere. mais boo jaayanteeg ñoom doole da ngay jàpp ne da am li nga bëgg ba pare di di di jéem a doog a teg sa bopp daal. voilà loolu mën nañ ko sax tudde war. voilà loolu baaxul. ci moom man su ma doon mooma. su yewi ne kii la ma ne kii la. voilà. léegi bu dee rëcc na ba pare maanaam euh, lii moom def na ko ba pare ah, lan moo ci kii bi. loolu li ci am bu jégalu ma na ko ci. non li ci am solo mooy na communiquer ak sénégalais yi rek. sénégalais moom li mu bañ mooy ah. ñàkk xam li ngay def. da koy wax ne lii laa nekkoon. su fekkee li nga wax convaincre na leen. jeex na loolu passe boobu tourné nañ ko bu fekkee convaincre leen nag yaa saako bi. Hmm. mais xel xalaatul moom Ahmed dara di déggoog Macky Sall ci mbir moom loolu xel xalaat du ko xalaat wala. xel moom lu leen lu ko neex xalaat rek. Hmm. xel. xel du yenu maanaa wala du yenu ah yaakaaruma ko nag. waaw man yaakaar naa jaar jaar yi ma gis Ahmed jaar ko. Hmm. ak ni ma gis mu doxalee ko ci ensemble bi hmm. damaa gëm ni ay ngëm-ngëm yi boppam la doon dem ba déglootul nit ñi. wala ñi mu doon déglu maanaam waru leen a woon a déglu. voilà ñi doon déglu waru leen woon a déglu muy ab sëriñ muy ab xarit ku mu mën a doon. Hmm. maanaam lim ko xelal nii ci kii bi moom baaxul. man loolu laa gis. waru ko woon a def. léegi lan nga nuy wax ci mbirum ma Madiambal Diagne. ma jëmbal jaañ temps yi tamit ëpp koy buum daal ak ñoom benn waa Samb leen koy tontoog yëpp ci tenue traditionnelle bu Casamance bi xam naa loolu waaw ma jëmbal moom yàlla daa dogal man awma man bëgguma di jàmbi mbiram dana man jambuma man ma jambal moo ma jëmbut ci boppam. waaw naan jëmbal. jëmbu ma daal xam nga maanaam man damay jàmbi reen di naan waaye moom bëgguma koo jàmbu daal dëgg yàlla. ndax da daan neexul lu xew. non xam nit bu fekkente ne yàlla dalaa dogal yow bëggoo lu baax. maanaam boo sañoon fitna rek maanaam Madiambal saa buy waxee fitna lay wax. Mm-hmm. ak di minimiser ay xeet. ak yu mel noonu ay robel ak. Mm-hmm. loolu boo xoolee lim ko bind ci at mi kenn xamul nu mu mm-hmm. waaw waaye nag euh, amul solo daal. parce que lu baax loo xamaloon. loo xam lii baax na ba nga xam ne lii moom da nga naan lii a def wax Madiambal am na njëriñ. waxi Madiambal am njëriñ amut. waaw ma jëmbal du wax lu am njariñ mm-hmm. du ko def te te jëmlu jubluwu ci sax mm-hmm. ma jëmbal dafa am ni yàlla binde loxob ndeyjoor binde loxob càmmoñ mm-hmm. am ñoo xam ne maanaam seenum ndeyjoor ak ab càmmoñam ndeyjoor daal nañ wutee noonu la yàlla wuutalee jëm yi dafa am ñoo xam ne lu baax rek lañ bëgg ak yiw lu rafet waaye ma jëmbal moom loo seen mu koy def ci àdduna maanaam ci boppam la jëm wala boog jaxase sénégalais yi rek. kii mën nga nu ko leeralaat balak douche. ni nga koy expliqué dafa doon lu neex ko ah non loolu moom loolu amul solo xam nga loolu wax naa ko ba noppi. àdduna ku ne ku ne am na koo ci mën a gisee daal sa bopp waaw. daanaka wax di waxaat moom jëru ko. ni ci vidéo rek YouTube moom léegi jaar daanaka loo xas ba wax rek. mën ngaa leneen ndax. jëru ko waaye daal. Mm-hmm. ma mm-hmm. Madiambal moom du référence. Ah. te non Madiambal ku koy nawloo loo koy nawloo. nit koo xam ne maanaam ba nga juddoo ba nëgë ni maanaam maanaam amaloo njëriñ réew mi amaloo njëriñ sa bopp hmm. voilà maanaam yàlla daa andut ak moom daal ma jàmbal ak hmm. naa ne hmm. maanaam suñ borom daal anduñoo yàlla daal moom te xam naa anduñoo ak nit ñi anduñoo ak yàlla anduñoo nit ñi xam naa man anduñoo daal moom ko loolu moom man maa la ko wax waaw man maa ci dolli xanaa nga laaj leen ko. <laughs> léegi ñëwal ci mbirum Mimi Touré dama dégg Pape Alé Niang di wax na mbir Mimi dafa fay mais tasul Mimi daanaka ay xeetu dugg génnaat ak jaxasoo réer dugg yooyu dafa bari ci mbiram quoi léegi boo doon jàngat kaam nan nga ciy wax Mimi Touré. waaw Mimi nag man su ma la ci doon wax am na ci loo xam ne day nekk vie privée parce que man mbir digganteem ak Amadou Maam Amadou Maam Diop moomu. Mhm. man li ma jàpp mooy Amadou Dagana la dëkk. mi mi dëkk Dagana. Hmm. te fa doon sëy Dagana la. waaw te Amadou maam booy Omar waaye Omar Sarr ndax boo xoolee sax booy Omar Sarr yu mel ne ñoom Diop Abdou Aziz Diop ñoom. Hmm. ñooy wër télé di ko défendre. Hmm. kon da xam ne fal giñ ko fal. Omar Sarr génnu ci. damaa yaakaar na nag su ma bañ su bañ dugg ci vie privée am. naan maanaam liñ naan xuloo sëy ba euh, ab sëy euh, xuloo ba ko tas njëkku ca waaye seen xuloo bi maanaam li ñuy li ñuy ngir ngir loo nii hmm. damaa yàpp ne ñàkkut ay problème personnel am na ci waaw damaa yaakaar ne daal bu ko làmboon ci sëy bi fekk ko ci damaa wóoruma nag dama ko yaakaar hmm. waaw mais à part loolu nag génn bi muy alf nii nga xam ne que tey non mi mi day seule personne bu ànd ak Macky te am fitu hmm. bu ko Macky Sall bëggee teg lu ko neexut mu ne ko nag lànk na ñi ci des ñëpp dañuy yot te Macky moom du yàlla du yonantu du xutbu du dóore du mayab xaalis du def dara maanaam gaa ya baax rek jébbal ko seen bopp topp ko nay xar. mais bétis yëpp fekk na ko ci régime bi dama ne la saa bu ko Macky Sall defee lu ko arrangé wu mënu ko lii arrangé te boo xoolee tamit Macky la ñi ma àndaloon ñi ci lax-laxi ba nëgën yi bareetut ñaata jigéen la fi àndal daq na leen ñoom ñëpp bañ dem seen yoon Mimi ngi fi ay Alioune Badara Cissé yi ñoo raw ñoo ñoo njëkk gënoon a jege mag Mimi fuuf mm. te bi ñuy dee dese wuñ dara ci Macky Sall lay leen faxas carrément ana Mbaye Ndiaye mm. ana Mor Ngom mm. ah ana ana ana ana ana ana ana Cheikh Kanté ah ana Seydou ah, ñoom ñëpp Macky Sall da leen a raxas Mimi Touré ci des saa bu ko Macky Sall ba fonto mu ne ko yaa ngi may fonto ah, Macky nag dafa ragal attaque fii ne nii nii mi mi riposté nii boo moytul da nga gis muy woo ko di jéem ñamalaat dara voilà bu dee ñoom Seydou Gueye nag lu leen Macky Sall def baax na waaw ah non non du question bale sax waaye nag nit daal booy ànd ak moom moom da xam ne jurul la jëndul la téléchargé wu la daa bëgg a jariñu nga bëgg a jariñu ngeen daja de war a jariñante bu dee jariñ bu la dee jariñoo nag te jariñootoo sa bopp da ngay am fay day wàññi ko waaw fii nag Seydou Gueye li muy topp ci ginnaawam ak lu mu hmm. waaw koo xam ne nii maanaam sëñ bi buñ la bettoon tey jii la maanaam grand bu bu bees donc mënoo koo lijjanti ci dëkk bi hmm. te ne ministre nga Macky Sall ngay àndal te buñ tuddee Macky nga nekk ci dëkk bi di saagaaka xuloo hmm. te amalu la njariñul yàlla loolu moom laa lay wax nii ah, ah. yow la wóoral yàlla Macky laay wadd boo masaan xam ministre bu Ablaye Wade da lay may béye màkk léegi nag boo xamee ministre bu Macky da lay jaay béye màkk <laughs> dégg ngeen ministre Ablaye Wade da lay may béye màkk ministre Macky da lay jaay béye màkk bu da la koy may Abdoulaye Wade moom sa ay sëfëram sax dañ ko dañ ko doon tuddee làmb defe naa. waaw loolu la demee affaire bi loolu la. Hmm. Macky Sall amalul dafa gënoon tàlli wala. te gars yi loolu ñu ngi naan xaalisu jàmbur xaalisu réew mi la doon may. kon daal euh, wolof dégg naa mu baax sa alal euh, Abdoulaye Wade kon euh, léegi léegi tamit côté système bi nga wax jikko yi. léegi dafa dégg du question baax ak bon. Macky moo ragal ko yorop xaalis. Hmm. Mimi Touré. moo la gën a xam ne Macky Sall du ko bàyyi ensemble muy fayee ko cinq moo tax ma ne ko woon li la li ngay wër. Macky yor na ko waaye dala ko iñaane xam naa li ma ko wax. assemblée mm-hmm. nationale cinquante milliards ngay teg sa tànk. kooku Macky Sall du bàyyi kenn ku dul ku maîtriser juróomi téeméeri yoon. Mm-hmm. du la fa teg. Mm-hmm. mag Moustapha Niass da ko wóor ne moom lu mu mën a forit moom bala bala xanaa ci day sakkanal miraas mi waaye moom du ci politique. ndax jeexal na. jeexal na loolu la leer. Mimi Touré daa am ay bët yu mu yor di am di xool man naa jël cinquante milliards xëy tappaas ko dem ànd ak Sonko jox ko ko day calcul du la jox xaalis poste stratégique boobu mm-hmm. laa ilaha illallah Macky Sall mm-hmm. Macky Sall du jox kenn be cinquante milliards mu jox la ko nga yor ko nii te defuloo ci sa poos ah nga Amadou Mame moom ci poosam la dëkk Amadou Mame Diop bi ni tur bu tur noonu yaakaar na Amadou xam nga euh, man daal li ma gis mooy am nga yaakaar ci moom la waaye man sóora de waaw Mansour bu nekkoon député mooy nekk président assemblée nekku ko nag mm-hmm. léegi awaayam la fa teg mais Mimi Touré moo la gën Macky Sall mu xaalis la am nit ñi mm-hmm. Macky Sall du jox kenn xaalis waaw way businessman yëpp taxaw nañ mm-hmm. parce que boo fi indi marché bi dix-neuf milliards muy njëkk xool mooy est ce que da ngaa xamante que amut ak ay lien moom maanaam li mu bëgg mooy réew mi bu kenn yor dara réussir na ko Mansour fay aadama fay moom dégg nga ak ak ak ak Marième maanaam képp ku yor xaalis mbokkam nga moo xam ne wóor na ko ne doo ko trahir waaye nii nii rek man a yow man a yow ay milliards mm. doo ko dégg doo ko dégg de wax ma benn nit laa wax business man mm. bi Macky Sall toogeeg léegi business man bu yoroon milliards di ko yor ba tey doo ko dégg waaw ay Atepa Goudiaby ak Bougane Gueye ak Cheikh Amar gaa yëpp da leen teg tànk parce que seen xaalis mm. sëriñ boobu ak ñëpp dañuy soob nii rek mais yoratuñ xaalis wax ma benn milliardaire bu fël depuis Macky Sall toog ak tey. amul kenn du yor dara. parce que réew mi Sonko bu yoree deux milliards day da koy da koy daggate. day fexe ba Sonko gars yi seen campagne bii jàll bii jàll problème problème bu carburant lañ amoon. tabaski barke sëñ Touba man maa ko wax ci télé bi gars yi dajale leen tuuti xaalis. ñu départ carburant buñ dawal amuñu ko Sonko lu mu lekkee ceeb da ko yor. te Macky loolu ci lay xëy ci lay gont mooy bu gaa yi yor dara rek waaw far nag yàlla def nag léegi nit ñi ku yorul dara leen gënal hmm. ah <laughs> Macky Sall lu ne jéem na ko ci réew mi yi <laughs> waaw yalwaankat léegi nag Sénégal Macky Sall daa def woon ne bu ñu yoree xaalis lañ koy mënal dara léegi nag far gaa yi ku yorul dara leen gënal Assane Diouf eh, Kélé door eh, dégg nga Karim Xorom xaq nga xam ne kaasub kafe hmm. saagub mille cinq cent eh. dégg nga solub tiset bu xottiku taxaw naan waa yee gaa yi na la voilà waa jaa ngi léegi boo yoreb xaalis sax ñu ne sàcc la mm-hmm. jeex na loolu mooy yàlla ko moom ak effort am bépp mooy na gaa yi ñàkk bi gaa yi ñàkkee nag far ñàkk nekk star Souleymane Faye nan yow yow yàlla yow yaa yàlla waaw xam nga damaa defee ne li booy naan lu naqari makki neex na ma mm. waaye daa mel loolu yàlla sax ci la ne mm, daa mel ne lu naqari makki rek après da koy def muy muy lu neex ko <laughs> ah kon makki ñi maki inde ñëpp yàllaa ngi leen di yëkkati xoolal gi Mari Sagna. waaw ah, ñi mu tëj ñëpp dem nañ ci. Mm-hmm. Omar. Omar. booy nee nañ lu naqari yàlla lu naqari maki neex nañu. Mm-hmm. waaye daa mel ni yàlla sax lu naqari maki da koy neex. Mm-hmm. daa mel ne booy daa booy yeeg yàllaa bokk mouvement buñ ne. <laughs> maa gis ci TikTok bi benn waay buy expliquer ne comme maki lu mu bëgg mu mu jafe comme lu mel ne lu mu bëgg rek du am quoi. mu ne mënul essayer bëgg-bëgg lu Sonko ba xam dina soof nit ñi quoi. en tout cas daal moom lu ku mas ne bañ naa la. yàlla day mel da lay bëgg capitaine Touré. bi ko Macky Sall tàmbalee bañ. ci la mbiram tàmbalee baax. Mm. Sonko bi mu ko Macky Sall bañ. ci la mbiram tàmbalee baax. Mm. Guy Marius Sagna ba ko Macky Sall bañee ci la mbiram baax Ahmed Aïdara ba ko Macky bañee ne ko dàq naa la tey nga toox ci la tàmbalee tedd. Mm. moom moom yàlla moom daa mel ne li bañ. yàlla moom daan na la voilà yow la Macky bañ léegi bëgg naa la maanaam mm-hmm. yow moom lii naqari na Macky léegi neex na gars yi dégg nga fexe na ba ñëpp nekk faqir léegi nag faqir ay star Sénégal voilà loolu moom man seetlu naa ko mm-hmm. bu wér mais dama laa gis nga wax ba waat waat ne ci yàlla ne 2024 Macky du doonaat président léegi nit ñi ni nga koy gisee duñ xam baatin ngay waxee wala dafa am loo gis wala dafa am lu na déy wala analyse nii ci xel loolu foo teg surtout nga wax ba jërul wax fa ma ko teg kay. Mm. Ah, boo waxee lu tegu. Mm. jërul wax foo koy teg wax ji tegu na. Mm. waaw. léegi kon ñu jàpp ne mars deux mille vingt quatre. Oh, non non mars deux mille vingt quatre wala mai deux mille vingt quatre wala février wala xam nga xam xam ne deux am na ay élection ba élection yi jàll ak jàmm rek. man waxuma ko pour ay baatin ak yooyu. man sawaay ah. man waxumay baatin. man li ma gëm ci réew mii. doy na ma sëkk. damay wutaat ku ma gëm. bëgguma ku ma jaamu. Ah. bëgguma ku may màggal bëgguma ku may su jootal bëgguma ku may raamal man am naa taalibe yu doy sëkk mhm. voilà yow xam nga ma dégg nga bu dee xaalis it wax dëgg yàlla moom xaalis daal bëgg naa ko waaw waaye nag du ma ko sàcc du ma ko fen du ma ko tiriyan mhm. te maa ngi mhm. bi dafa ne bu loo ay nit a ci nar a dee te Macky bu ko leeree ne bu ko leeree ne bu ci rayee nit tamit day échec jaru ko moo tax ma waatal ko ko parce moom xam na ma xam ah xam na ma de li ma ko waat noonu li ma ko waatal noonu. xam na ko dofu xam na fa ngay waxe wallaahi la sim bu bu même bu ko waxut. Hmm. moom dana xam ne man man man du ma fen man xam na ko. jàng na psychologie xam na nit kuy toog di fen man fenuma lu ma la wax ci àdduna bindal denc. Hmm. te li ma la wax nii du ma la ci saayir laa ko teg du ma la ci baatin laa ko teg. Hmm. waaye lu tegu la lu kenn lu dindi. jarut nag naan fii laa ko teg ndax wax ju tegu moom jarut naan jarut di justifier. la 2024 gi ñëw élection dina am buñ paree Macky Sall dootu yor décret. day wàcc man maa la ko waxaat fii Cheikh Talif bu jàllee waar ma dootu nekk président Sénégal hmm. waaw troisième mandat nag loo ci gis bu ko defee dama ne man dama ko ne boo ci rafetee xam nga man ay troisième mandat ak ay yooyu yëpp man xaw ma ko xam nga lu ma xam hmm. Cheikh bu sa biddiw falu fa jotee hmm. kenn mënu laatee falu bu sa biddiw suuxee ci falu kenn mënut a wax ba nga fal gis nga Macky Sall ba demee ba bëgg a fal ab président assemblée donc nga xam daana ko fal ba ca gannaaw su bëgg nit ñi di ko doog a yëg léegi nag day recruter armée bépp doog koo mën a fal <laughs> war naa yëg ne la woon wànni na mbar ma dem daa nekkatu dara mm-hmm. léegi dama la dégg benn waxtaan ngay wax ci baajo kamara ak soxnaam ngay expliquer ne soxnaam boobu xaw ma day gis xaw na bàyyi xel loolu mbirum baajo kamara da nga ci amul yaakaar non xam nga man damay dimbali nit ñu bëri dañoo defe ne damay nappaate wala damay lii billaahi wa yow xam nga ma sax seex man jërul sax ma lay wax man nappaate wu ma bëgguma ku ma gëm man boo ñëwoon fii di ma gëm di ma raamal man duñ mën a def man li ma bëgg mooy bu ma waxee nga weddi ma ñu xuloo wala nu man a toog ànd fii dem jënd suñ beñ dugub ànd ñëw lekk ma toog ci buntu kër man loolu lay dund dund may yii gars yi di dund nii man dund ma ko waaw parce damaa xam ne am nañu yilif waxoon waxoon di xeex ba yilif Sénégal kuy sëqat tàggu leen bi biñ dee dañ leen a suul sax yi lekk leen voilà ki yilifoon Kajoor kuy dee kuy sëqat tàggu ko ak gënoon a échec ci Kajoor soo demee seen ñaari bàmmeel yaa dend ñoom ñaar ñëpp dee nañ ñu suul leen rek adduna yooyu yooyu man gaa yi nekk nekkuma ci hmm. vraiment man yooyu nit ñi nekk nekkuma ci hmm. man lan nga mën a wax ci cas Imam Ndao benn affaire gis nga gaaj Badio Camara li ma ko wax dégg na ko nag dégg na xam na ah li ma jàpp nit de moom bu dee li ma wax ci réew mi de mënuñu ko wax mënuma ko wax trois cent mille personnes seetaan ko te déggoo ko loolu moom mënta ne ndax sa mbokk dana ko dégg baa nga dégg hmm. te du ma wedde de ndax li ma wax man xam naa ko hmm. ci baatin nag laa ko teg bu leer waaw man xawuma ko musuma fato xanaa wala internet hmm. am na ñaari jabar ba ngay wax sax ci mbiram dafa yàgg parce que ki may wax man ki ma lay wax ñaaree lam la waaw ñu ngi sëy ba tey waaw waaw su ma lay xëy sax ma ne la. am nañ doom benn doom la ñuy am ci àdduna te jigéen lay nekk. ah amaguñ am nañ ah am ko pare ah, waaw waaw duñ amaat bu ko amaatee na ñëw rendi ma. Ah? waaw. dafa am fibrome wala lu fa. non non du loolu. li ma la wax xam-xam la boo xam ne man dama koo jàngi xam ko di ma liggéey di ci pratiquer. Hmm. lu ma la ci lu ma la ci tegal nii ne la lii nii la noon la. du affaire nag nekk yàlla ay yàllaa xam luy xew ak du loolu. Hmm. ñëpp xam nañ ne deux mille deux mille vingt trois dix huit Euh, euh, dix-huit sef sa dix-huit dix-huit safar hmm. fii day xumb day bari oto kooku aajewut gi yàgg yàgg ci réew mi la waaw ah non <laughs> ku bis boos non deux mille vingt-trois euh. dix-huit safar billaahi fii day fees da lekk oto bari na kenn mënu ci dara bis boo ñëwoon gis koo xam ne xamut luy taw nga gis muy taw nga ne ko fii ci fan ñax mi day sax bu saxee naan sa yaam xam-xam fekk déedéet <laughs> moo xamut lii nga xam ko rek affaire bi du doon yàlla du doon yonant nun danaa am lu nuy def mm. loo xam ne dañ koo jàng mm. ay siifur la pratiquer wird zikar mm. di ko tiktak di ci gis liñ ciy gis di ko wax du caagi ni dañoo doon yàlla doonunu yàlla dañuy dem ci duus bii waaw dañuy nelaw di dem ci jigéen ñi di lekk di naan di def lépp lu nit di def. di fàtte di fàttali ko. ah waaw waaw bu suñ téléphone bu benn booy ñëw na fii barki de mu ne ma sama dañoo sàcc sama euh, damaa jaay ndaamaraas ba mu ba mu jeex ma teg ko ñu sàcc ko cinquante mille ma ne ko booy mu a ma ne ko man bu ñu sàccee sama cinquante mille damay perte demal de boo liggéeyaatee ba ma may ko cinquante mille nag bu da nga koy denc fu wóor waaye buñ ko tojee moom nga naan suñ baara wax ci man mii bu ma sàgganee bañ sàccee ma ñàkk naa ko ay nit lañ duñ yàlla bàyyi la ngeen def voilà moom moo doon wax tamit nekk almet du duñ ci bind incha allah day tàkk ko incha allah wax boobu moom du <laughs> Cheikh Bara Ndiaye dégg ngeen li mu wax ci ba mbirum imam ndaw nag laa bëgg kii am na waaju àndoon ak ab sëriñam dem ca Amérique mhm. sëñ bi dégg bu ne tëll jub bunt yi rek bunt yi ne kërës mu defee ne baatin la moom mu ne sëñ bi nekkate waa réew mi lay nëbbatu moom bi mu ñëwee fi bunt yi sax bu leen jubee ñu tijji ko <laughs> sëñ bi teel la ko teg place am balaa xamut ne loolu noonu la demee rek waaw léegi nag moom affaire bi noonu la demee moom lool la tolloo ci xelam mais ñun li ñuy wax nii du dara. dara waaw. Mm-hmm. chiffre dafa am yow yaa ngi nii da ngay tëdd gént dara xëy suba gis ko. Mm-hmm. loolu lu mu doon. voilà da ngay toog fii jékki-jékki xalaat Cheikh Taalif mu wala téléphone. Mm-hmm. nit day feebar nga ne day dee mu dee sax xel moo la koy wax. nit dafa am baatin ci boppam. soo demee di zikar di tajjiliyaat di defal sa bopp di tajjiliyaat yàlla ji nekk ci sa biir. Mm-hmm. day dem ba loolu day màgg ci yow da ngay xam lii xew suba. te doo yàlla doo yonantu boo puubut dangay dee léegi. Mm-hmm. waaye nag dafa am loo yee ci sa jëmm loo xam ne mindaan mi nekk ci kër gi man dama koy wax. Mm-hmm. sëriñ bi toog nit ñi di ko rang. li muy def bu ko bon bi nekk ci sa waañam wee bu ñëwoon saa bu ko sëñ bii def ñu ànd ko bu yàggee ñuy rang bon bi. <laughs> nit la yàlla bind ni mu ko bindee noonu la ko bindee ñëpp ay gént. ku dul gént. ñëppay xalaat ñëppay jeeneer dégg nga loolu noonu ngay gis nag ci sa rôle la installé wu soo dee tudd yàlla di moytandiku bakkaar di def yenn yi pratique yi di di di lekk lu lew day dem ba loolu day yeewu ci yow bu yeewoo ci yow yaa ngi dégg dangay ngay jékki di xam luy xew suba billaahi wallaahi tallaahi fan yii keroog jeudi jeudi bële mm. dañoo jógee wal fajiri bi ma defee émission ba pare ma ànd ak Baye Mbaye ak Seexuna Silla ma ne man de Cheikh am na luy xew ci moom quoi xaw ma lu mu doon nag mm. voilà xaw ma day bëgg a defub déclaration xaw ma dafa am lu koy bëgg a dal mais sa siir que ne man am naa sant lu ma wér ci ne Cheikh Yérim na lu muy waaj def daal ñi xëy suba ñu ne takk na Astou Dione ñu publier ko ci internet bi yëpp ma ne ma ne voilà lii laa doon sentir te géntuma ko defuma ko dama koo jeeneer jeeneeraat ko mu wóoru ma ne lii lu tegalo luñ may wax comprendre loolu dafa am li may wax nii maanaam bu ma neexee ma wax la ma man naa la man naa maa laa wax loo xam ne daal da ngay jàpp ne kenn waru koo mën a xam ma xam ko man. waxaatal loolu ah, ah non non ko. loolu su boobaa nag loolooy jaayu nag man amul njariñ ma koy wax. Ah. li may wax nii man saa bu ma ko waxee ba ma koy wax ci Samba Sall. billaahi dimbali ko dong nga taxoon ma di ko wax. barke sëñ Touba. Mm-hmm. pour mu bañ dugg ci dossier Sonko bi. Mm-hmm. voilà barke alquranul karim billaahi bëggoon mu déggal ma ba heure bi fekk ko muy waaxu. Mm-hmm. Farba Ngom. am na lu ma ko waxoon. xam na ko xam naa ko dofut dara jëlu ko. na ci. ah xam na ko xam naa ko man du ma fi nekk di wax man Seex Seex Taalif bàmmeel maa ko gën a dë maa ko gën a nëbbutu. voilà man kenn du xam dara ci nit fekk maa la ko wax. voilà doo dox mukk ban ne la yow nangam fekk loola mën nga ko waxaloon man du may lu ma noonu man nit ko. voilà mais. Farba Ngom. xam na xam naa yàlla xam na. Mm. la ma waxoon. billahi wallahi watallaahi dimbali ko dong. ak bëgg mu nekk ci jàmmam di daagu ci suuf si yii am jàmm ak salaam voilà parce que suuf si moom saay mhm. ñi jot a dee ñi ngi tëdd jëriñ defuñu dara ñiy dund nag même bu dee dañ lay tooñ sax ñi ngi dund rek waaw baax na mhm. voilà mais dafa am yoo xam ne boo gisee ak nit nekk ca te amoo foo mën a jaar fu dul wax da koy wax rek mhm. bu la weddee sax baax na quoi nga xam ne def nga li nga war a def mais mën a a mooytuwaat de ko loolu kay jeex na bul rey nit ñi kon procureur moo amoo loo ko jox. procureur ban. Diouf procureur am lu ma koy wax man joteewu ma ak moom dara. moom daal na am fayda te am fula te bàyyi euh, conférence yu ñorut yi. waaw <laughs> ab ah, procureur moom moom maa ngi ngooyam bu waddee te ñorut day day yàqi bañ. <laughs> bàyyi ba wax ñor muy doog a wax. waaw waaye génn naan ay kabilin jaataak ay yu kenn xamut yoo xam ne. Mm. boo paree booyee dañ lay jël di la tiktokaat loolu amul njëriñ daal. waaw ño procureur rek màngoo yam balaa ñor balaa wadd na ñor ba noppi waaw day wadd rek ñu jël jëfandikoo waaye wadd wax ba noppi ñuy jël di baxalaat ak mm-hmm. di ci dolli xorom ak mm-hmm. léegi ma jaaxal man ci dëgg laa la xam euh, comme li ngay wax ni yi nga fi wax yëpp ñu teg ci bët lu ci ëpp daanaka bu dara xewee rek var bi ñu indil Cheikh baara bu positif lay doon lu rafet lu ne waxoon na ko bu yàgg mu leer na lii du montage am na sëriñ yoo xam bokkul nag sëriñ si nga xam dañuy bàyyi ba dara xew ba pare bu vidéo bi duggee nga gis il y a deux heures de temps xam ne lii lii léegi lañ ko dugal ñuy wax wax yoo xam ne que yéen tappale yooyu nan ko moytu man lii da ngay gis ne ñoo naan Cheikh Bara waxoon na ko un an ci ginnaaw ak yooyu mais damay gis li ngay wax ci dëgg ak logique a chaque fois bu man lii liiree commentaire dinaa gis cent commentaires yu ànd ak yow mais dina am quatre génn gaam yoo xam ne que dañuy déranger quatre génn génn gaam xaw ma répondre automatique yi la xaw ma lu mel noonu bu ko defee te yow dëgg laa la xamante ñëw contraire yu ñàkk wax dëgg lan lay waxal ñooñu boo amoon pikk boo leen di dóor lan la. loolu. mooy waaw dama ne loolu boo mooy àdduna loolu yi nga gis. mooy àdduna. boo àdduna. Mm-hmm. da wax li ngay wax. Mm-hmm. ki ko gëm gëm na ko lum ci teg yëg-yëgam la ki ko weddi weddi na ko lum ci teg yëg-yëgam la. Mm-hmm. xam nga lu am solo te am solo rek. mooy boo waxee ki kay weddi moom ah na ko te ticc ci mu dindi say wax teg fa dara. loolu na ko tëtti ci man loolu mooy sama mission. mais li nga may wax man kooku concerné wu ma. Mhm. moo lal di jaay doo nga yem day am juróom ñu la romb jënduñu am ko la romb ne eh am jaay ma nangam. jaay ma màdd ko mu continuer am na ñeneen ñaar ñu la romb ñoo xam moom du bëgguñu màdd xooluñu la sax. dégg nga am ñett ñu rombaat kenn ki jënd ñeneen ñaar romb loolu mooy àdduna ko amul kenn koy wax ñëpp gëm la. Mhm. amul kenn koy wax ñëpp weddi la. point mais li ab am solo mooy. Mhm. ñi ma bëgg a def daa bari lool. Mm. man demoon nañ ba tëjjil ma groupe. waaw. boole ma ca group ba ta <laughs> yeguñu ko man akamaa akamaa nag man nag yàlla. <laughs> man damaa mus groupe man dama muslaay de. <laughs> ubbi pour def la xarit intime bu nekk RTS. waaw. daf maa mos a boole koo naa noppi rek. gaa yi daal dañ ma dugal ci group santaane ma ñu topp nañ topp vidéo yi. Mm-hmm. pour pour daane ko. di ko topp. xam naa nag day saan def nañ lu ne. Mm-hmm. waaye génnewun dara ndax man man man moom yàlla daa dogal li may wax. Mm-hmm. xoromu ma ci sama cin leblewu ma ci fayu ma ci bor. Mm-hmm. li may wax billaahi ni ma ko gëmee laa koy waxee même bu fekkonte ne daa dajeeg ma fen da xam na lii laa gëmoon lii laa wax. point. léegi gis naa ñu génne benn vidéo bu yàgg xam naa li ma ci ñaaw nag loolu loolu moom moom moom moo moo moo leen ci kii ñi naan. Euh. Euh, mooy bi ma waxee ci ne Macky Sall day daanu gis naa benn waay bu naan. Mm-hmm. moo fi waxoon lii mm-hmm. mooy mm-hmm. ma ne buñ buñ ñu doo buñ ma dooleeloon sénégalais yi mën nañu am expérience de vie bi ñu am mooy di ko am 63 ans dee ah, mooy loolu suñu première émission la xam nga première émission loolu suma première émission ba léegi kon li ma fi waxaat lépp amoo loo ma waar yow bu jëkk ba te li ma wax ku ko weddi nañ tëj pharmacie pharmacie yi lu ñu fiy jël lu ñu fiy dindi mooy ñi war a dee buñ naanee garab yi dee gi andu <laughs> voilà ñun bu ñu demoon ba bañ dooleel médecine traditionnelle. ñuy fajoo suñ reen yii. ah ni ñuy deewee wàññiku xam nga luy garab. Mm-hmm. xam nga luy reen. nun da nga naan nooyi garab gi jël lekk. Mm-hmm. garab gi na uf nga xëcc ko. maanaam li ngay génn yow garab boo koy dundee li li ngay ñoddi garaba la ko jox. gis nga boo safee boo lekkee ba noppi. Mm-hmm. loo lekk garab la. ceeb dama ñambi karoot. soble suppeme ñebbe naajo ceeb euh, naajo loo mboq loo lekk rek garab la soo paree mhm. tuur gi nga koy tuur dugub mhm. loolu la suuf si di aspiré waat garab yi dunde ko kon xam nga say say tuur dugub moo nekkaat garab gi mhm. soo ko lekkaatee feebar yëpp manqué vitamine dong la mooy tax nga nga tëdd ñu samp la biteel nga jóg dem saw yoon léegi nag buñ demoon ba nga xamante ne ñun suñ garab yii moo ñuy fajaat li ñuy dund day yokk ni ñuy néewee doole nii di kof kofi day wàññiku mm-hmm. yenn maladie yu bari yu nu yab ay bët ay tànk ak yooyu mm-hmm. yëpp dafa am ay vitamines yuy dee ci sa biir yaram mm-hmm. vitamines bu dee neer yi dee loolu mooy tax doo mën a doo di am ay feebar ñun médecine la ñuy wax ñu naan non kii nee na day yokk fan quoi waaw léegi man damay yokk fan ah. man <laughs> damay yokku fan de waaw waaw kuy bëgg war a dund 40 boo ñëwee ah. ma dundal loola cinquante ans maa ko wax. waaw. Cheikh Bara nee na ko war a dund cinquante quarante ans bu ñëwee mu dolli la. cinquante sarax day fànqoog dee di sarax. sarax nit yonent bi wax na ko sarax day fekk nga war a dee. Hmm. nga sarxe dee nga fànqu. xanaa kon xanaa kon kon kon loolu loolu loolu man man na maa fànqoog dee ndax mën naa laa digalub sarax nga def ko. faju faju day tee dee am na ñoo xam ne ne billaay bu ñu amu doon xaalis ba léegi dee nañ bu yàgg. Hmm. dañuy jël avion dem ci tubaab yi ñu defaral leen ay fiil defaral lépp ñu ñëw fii toog di dund bu paa paa yi maase ak ñoom ku ci dal nga dee léegi mm-hmm. kon kay xanaa tubaab yi dañuy yokk dund ah mais nekk fii di wax wax yu ñàkk fayda yoo xam ne man daal man kum neex ne ma yaa mën a fen waaye doo andi li ma fen mm-hmm. kum neex na ma yaa ñeme yàlla mm-hmm. waaye doo andi ni ma ko ñemee dégg lu neex waaye dama wax man aw ma problème yooyu xam nga kaa <laughs> wax la loo xam ne nii moo tax yow waaye rek a man bu ma gisee nit di ma saaga ndey damay kontaan. Eh, lu la ngay kontaan. damay xam ne kii na ma xaw ma. Hmm, saaga wàññi wala dara. ñun ab donga. waaw Cheikh yow ñaata yoon nga wax eh diw ñu ne ah kañ saagante. <laughs> nga ñëw kii ne innama dëxëra ñi ku ne gën a ñàngale ba kenn hee bii moo gën a ñàng <laughs> ñi daa dem waaw da nga ne loolu daa jëkk daa jëkk ci ñun ñun dañoo defar ñun ay saaga ndey eh. ay xamoo daraak eh. ay sar la tànk garabu garab ngaak yooyu ngay gis noonu <laughs> yàqkat man ma sama dégg ko naan mokkalul euh, xat ba naas xam nga yàqkat euh. xam nga baatub yàq mooy lan hmm, yàq nga fekk mbir mu taxaw euh. nga yàq ko hmm. tabaxoon kër ba pare hmm. ma ñëw yor ab katal plan la dama yàq kër gi da tiit ndax da ngay xam ne boo ma bàyyee kër gi ma yàqu <laughs> waaye bu ñu yoree ab paaka ñëw naan damay yàq kër lu la tee xëy da xëy xam ne waajur xamul nu ñuy yàq kër <laughs> ah? moo tax man fii ne boo may jéem a yàq damay xool li nga ma bëgg a yàqee rek bu dee ay saaga dong damay xam ne yow pareegoo pour yàq ma mi ngi mel ne ma tabax immeuble nga yorog lañ set naan da nga koy daaneel da xotil garaaw <laughs> teppil ba suba mo teppil nun ay Baay Faal lañ nun Seex Ibra Faal danoo yar kajoor koo mos a saaga ndey moo la yoreel bakkan dañ naan diw damaa saaga woon ndey fu mu mën a jaar maay jël bakkanam Cheikh Ibra ñëw baase affaire bi ba nga xam ne da nga naan da nga yor sa kaasub kafe ma yor kafe nga tipp ma tipp ñu ne ñu naanante kafe continuer noonu ay Baye Fall lañ yooyu li jëntiwuñ ko ay sarlatan ak fenkat ak c'est pas faux loolu garaawut bun bu ndee sarlatan te <laughs> amul problème quoi mais man daal li may tabax yow yow xamoo lu koy yàq ba koy yàq moom non man bi ma xoolee ñu ne xat sàmmee ba naa ma ne kii tagg na Cheikh Bara am na imaam yu nekk Dakar mën nga cee wàññi cent xam ne bu leen bëggoon tam loolu sax man bëggum am na koo xam ne damaa ñaan ci yàlla dund ba dee du ko gis duma ko tudd li may waxit duma ko dégg parce que benn mooy gis ku ko gis gis ku ñàkk njariñ ku ko dégg dégg ku ñàkk xorom mm. te te ñàkkub xam-xam dégg nga kon daanaka daanaka amul solo waaye dafa am loo xam ne bu dee nee nga nit da ngaa nekk xaritam daan fanaan néegam hmm. naan mukkalul xadd sàmmee ba suuf loolu kuy fanaan néegum nit waru koo xam xam nga ko war a xam hmm. kuy jàngal nit waaw da nga ko waroon laaj ba xam ndax ko da ko doon jàngal wala jàngaloo ko waaye yow mosoo maa jàngal ba noppi naan mënoo tari xadd sàmmee ba suuf xanaa da nga ma doon téyel may tari xanaa seetaanul débat ba amoon wal fajri yow dama ne xam nga loolu sax garaaw dama koo xam ne yow dalalu la baa jàngalu la ba xam fi sa àlluwayam naan la fii la sa àlluwayam da nga koy laaj ndax dëgg li ngeen séqoon jàngale la woon wala xarito seex yow mën ni nit mën naa xaritoog yow te xamul ba xam mokkal nga am dara mokkaloo ko waaw non nit ñi dañoo wérut waaw waaye amul problème dafa am ñoo xam ne rek mm-hmm. mais soxor lan la mën a wàññi nit soxor ak indi ci nit ba nit bu soxoree yaayam day soxor ci force baayam day soxor ci soxor force magam wala wala soxor moom soxor soxor mi ngi mel ne ngay carte mariage adduna bi ni ñu carte mariage ñu baata rek nga kupp rek waa ji jël ñeenti as yow amoo as hmm. ni carte gi tëddee la neexut moo la arrangé wut neexu la daal dafa am ñoo xam ne niñ xoolee àdduna ñoom position bi ñu taxaw baaxut ci ñoom da <laughs> nga ñu bëgg a saltal carte gi <laughs> loolooy soxor dañ koo baata rek gaa yi waa ji jël ñeenti volet xaw ma ñeenti volet wala as treefal ka kër ah. bëroon ñeenti wale la ñaari tout lañ jël mu jël ñeent ñeenti ñetti wale yi mm-hmm. jëlub âge jëlub neuf taxaw di la xaar nga xool kart gi xam ne arrangé wu la nga nga siisu mm-hmm. ñi soxor ñooy siisu maan yi mooy ni mbir yi tëdde mm-hmm. dañ koo xool arrangé wu leen waaye noonu bu ñu nandate woon adduna kenn noosul fi ne Macky Sall moo la bi problème barke sëñ Tuubaa sëñ Bass Abdou Khadir mii ngay gis moo la ay problème téeméeri junni yoon dana bëgg a tëdd du tëdd mm-hmm. dana bëgg a nelaw du nelaw mm-hmm. dana bëgg a waxtaan ak waa këram du waxtaan ak ñoom mm-hmm. dina maanaam amul fii ku la gën a kawe ab ak dund ko maanaam kooy ñee bis boo ko làmbatu woon xam ne maanaam waroo ñee affaire bi boo bañee soxor xam nga lay def yow li nga yor ci carte gi yow yow yow na baax ak yow rek waaw xoolal ni mu la arrangé rek nga tege ko noonu <laughs> mais jërul bu fekkente ne ñi baataral nañ carte gi yow amooy volet kii ami volet kii yor volet yi bu muusee boo bëggee a yàq carte gi day lànk rek ah, am na ñoo xam ne ku leen faale lañ bëgg bu leen faale kon daal soxor mais soxor moom du nit ki du ko yaayam du soxor mu soxor. non non du loolu du loolu du loolu soxor moom moom moom ni ma ko waxee rek dafa am ñoo xam leen yàlla def moo leen neexut. Hmm. parce que dama lay jox ay jàmbur comme comme nga bëgg a mel ne diw. da nga ko iñaane. comme mi mel frère Pogba bi ma la doon wax. Mathias Pogba dégg naa sax tëj nañ ko. waaw waxoon naa fii affaire mystique. Mhm. ak Real ak pareeg loolo gis naa gaa yëpp di ma saaga di weddi. waaw léegi nañ wax ci bi nañ wax man wax ci man seex man seex lu ma la wax bindal denc. Mhm. man du ma wax billaahi wallaahi talaay du ma fen man. Mhm. jërul sax giñ. man <laughs> ah man naa am naa am ki may fe ki may wax fen ma de waaye man may fen moom man du ma ko def moom. waaw ah, yow nag man eh, fen indi ma ci nag du yóbbaale ma. fen loo ma daal fen fen loo waale ma waaye man ma ñëw rek na am intention tey ma fen. amul la jëriñ <laughs> non loolu moom du ma ko def. Eh, ah. comme gis nga Pogba kooku mi mel ndey ak bàyyi leen bokk soxor daal ko exemple. waaw ah. non non waaw léegi kooku bu sañoon mooy taxaw place Pogba mooy carte gi ni mu tëddee ko neexut rek. moo ko neexut rek ah. <laughs> mu bees génn ko carte rek la carte xoolal. Eh. carte gi ni mu tëddee moo la neexut. Hmm. mais boo muusee suyel rek man naa am ñu baatare waat nga am nga kupp lu baax. mais comme par exemple Macky Sall fi mu ne carte gi ni mu tëdd neex na ko wala neexu. Macky ah, oh, ah. nag da may dugal loo xam ne xam nga Macky kilifa nag président de la république. non non da nga ne comme par exemple xam ni mu nii neex na ko wala mu mel nii wala. non Macky neexoon na ko. waaw xam nga waaye dañoo baatare waat wala yi am fu mu <laughs> ñoo baatar waat gaa yi yor carte yu baax fii na affaire bi jaaxal ko lool rek waaw ah, loolu am ko léegi carte gi fi mu féetee la neexul léegi euh, ma ñëwaat ci côté même président Macky Sall damay gis euh, liñ ko yan tamit diis na trop nit ñi bu tawee ñu ne Macky Sall bu tawul ñu ne moom la koy toolam yàqu ñu ne moom liñ ko jiiñ ba ci kilifa yi fi gaañu ci nguuram sax ñu ne moom mu mel ne moo leen rey ba am ñoo xam ne ci imam ndaw bi loolu jur ci kii ñoo naan day euh, sacrifier nit ñi ñeneen ñi gis ko ay poisson am poissonné xeet boobu doon xeetu tuuma yooyu tamit est-ce que diisul du singali nit ba ba muy sangu géej nga naan ko bu ma loolu moom hmm, lim yanoon i toll. waaw bu muusee. na ko yu muñ loo yàlla rek. waaw képp. te xam ne maanaam amoon nay at ci gannaaw. mën naa déglu rajo bay bëgg a dee du dégg ku tudd Macky bay bay bay jàll ci sàll ji te bis bu yàlla dogalee ba li mu yor yoratu ko dana toogaat du yàgg du gis ko ko tudd cib journal ku wedd laajal Karim Wade bu muusee daal nays muñ ñi na ko muñ loo yàlla te continuer nekk di liggéey li muy liggéey tey ñaan yàlla seen sénégalais yi di xëy ci moom di gont ci moom waaw looloo baax ci moom waaye moom nañ ma bàyyi bu kenn tuddati ku dee ñu bàyyi la ku xew ñu bàyyi la waaye ku xew nag ngi lay tudd moom waaw kon Macky ah déet ku nekk am réew kay bu ñu jëlee lépp ne la yaa ko jiite kay xew nga waaw ah Macky daa yëg ne xew na lii moom xew daa xew de waaw waaw ah. koy campagne non xew na xew na kay ah Macky Sall ñëpp ku Sall waaw moom kay nag na baax na bon na lu mën a doon waaye Macky nag moom wax dëgg ah, waaw waaw kenn daa a bindu journal ba mu yegg te bindoo ko ci. mais mbiru imam Ndao yii xam nga nag man moom nit ñaar daa am ñaar yoo xam ne dama koy bàyyee say bokk mooy sëb tëraay sag dee moom loolu moom say bokk nit moom koo mën a doon moo tax nit na fonk mbokk loolu moom nag moo ko dugalal bu ko dagg nit na fonki mbokkam ndax koy àndal mm-hmm. ak mën a leen boole waaye saa yu jekk-jekk nga ne kërëb tëdd mm-hmm. say bokk lay dese boo dee ñoo lay suuli mm-hmm. waaw kenn ko ku man nag nit moom boo xasee ba nekk ci tëdd tëraayub dee tëdd akuk dee kooku say bokk laa ko bàyyee waaw boo amee lu ñu ciy wax ñoom nañ def seen conférence de presse wax ko bu com bu ma convaincre ma ne dëgg la. waaw lu ma convaincre it ma ne patt nag wax dëgg yàlla waaye daal nit moom sab tëraay ak sag dee moom kooku say bokk ko moom waaw fu lu tukki bi sori sori boo dee ñu diri la andi boo tëddee taw jóg ñu diri la andi. moo tax booy man koo mën a àndal bul fàtte say mbokk. waaw parce que nit kum mën a doon nag laa wax. Hmm. ak mën a leen boole. waaw saa yoo mën a dee. ngi diir yóbbu la waat la moo tax nit àdduna moom ku muus rek loo mën a defit teel say bokk ndax dëgg dëgg dëgg ñoom dong nga am nag mm-hmm. waaw léegi gouvernement buñ ko tëggaatee bu bees lan nga gis yan bopp mu ñoo war a wàcc ak yan bopp mu ñoo war a ñëw non yow seex yow du ma la analyser ni may analyser ci yeneen kii daal mm-hmm. ndax yow bëggoo yooyu mm-hmm. waaw waaye moom xanaa gouvernement bi moom duñ ko defaraat daan nañ ñi fi nekkoon ministre ñëpp nekkaat nañ fi ñu nekkoon DC ñëpp nekkaat nañ ko wasalaam. Hmm. xam loolu moom du demee noonu il faut am ñu wàcc am ñu yëg. Hmm. ah. boo doon digal ñan ñan dem wuti ay ñaan ñan lay doon ñoo xam ne ko moom gis nga ne seen sees yolam na. déet loolu moom du ma ko wax. Ah, loolu moom mbirum sutura. ah waaw waaw waaye da. kon boo doon wax kan moo gën ci réew mi. nit ki xam nga ku bëgg baaxul ci réew mi jërul wax. mais boo doon lim koo xam ñii bu duggee baax. barke sëñ Baara hmm. laa wax tey jii xam nga tey la màggalu Tuubaa. waaw woo naa koo xam ne sama xarit la. ma ne ko neel diw. waaw ab DC la. waaw su ñaan luut day wàcc. day wàcc waaw. moom nag day sama xarit séq nañ ko kooka. Mm-hmm. waaw te damaa bëgg mu toogaat fa nekk fa. Mm-hmm. amuluma njëriñ nag wax dëgg yàlla waaye comme samay gaayu gaay samay gaayu gaay lañ nee naa ko daal bu seetaanee rek du bokkaat ci dara. du bokkaat waaw. xaw ma nag ba xam nu muy demee nag waaye wax naa ko xaritam tey ji de ci màggal gi. Mm-hmm. waaw te buñ coupé ma wax la ko. waaw te boo moytuwut même bu ñaan loo bu ñaan ñaan gi fóorut sax day daanu de. man ma léeg-léeg ma ñaan du am di xanaa moom ñaan mbir mi tudd ñaan di ñaan la tudd mi ngi mel gi nga taxaw rek ab géwél nga romb ab géwél rek mu lay ñaan rek sans dépend ci ni mu la fekke rek léeg-léeg yàlla nga ne ko nii nii nii nii nii mu ne cell di du la wax dara <laughs> waaw. boo ko weddee rek xool ko ci géwél yi lay ñaan rek fi ne nu la neex rek nga ni maye maam du caagi ne lu ñu la wax nga forcément la waaw léeg-léeg mu wax tuuti nga jox ko lu bari léeg-léeg mu wax wax wax wax wax nga ne pat waaw c'est vrai waxtu bi nag dëpp si màggal bi kii laal bëggoon ñu wax ci sport dañ gis ne Sénégal mi ngi jëm ci coupe du monde bi mais jafe-jafe yi mi ngi bari daanaka ñu bari nekkuñ ci lu leer Edouard Mendy mi ngi commencé xeeñ ban Koulibaly temps yi moom ci mu ngi ci banc bi chance bi am mooy bi leen entraîneur bi tegee ci banc bi da leen fa jëlee ba ngaa dégg-dëgg waaw coupe bi analysé wu ma waxuma ñaanuma waaw bu ñuy football daal dinaa seetaan mm-hmm. bu ñu gañee baax na bu ñu gañee bu ñu gañee baax na waaye man ajuma ci sama dara mm-hmm. waaw mm-hmm. da nga ragal vaar wala non dama dama damaa yitteelu daal dama am ci yeneen yitte yu ma nekk man waaw yitte lan sama yeneen yëf rek yu ma nekk yu bokkut ak football bi coupe dem Afrique bi dañ koo jël ba noppi dara soppiku wut dara waaw maanaam ñebbe ji daa yokk ceeb bi yokk diwlin gi yokk jumbo ji yokk eh. damay ragal ñu jël coupe du monde diwlin gi gën a yokk waaw comme que coupe bi moom day ñëw rek yëf yi gën a yokk moom wóorut eh? waaw man damaa defoon ne coupe d'Afrique jël ko daa am lu muy soppi ci dundum nit waaye dañ koo jël dara soppiku wut waaw a ah, ah, moom daal sawaay mi ngi mel ne nga yor néegub sàkket di jënd fauteuil en million jëru ko bàyyil ba Europe terrasse. doog a jënd fauteuil yu seer. lu nekk daa am ñu ko moom ñun nan defar suñu dëkk bi <laughs> nañ fexe bay dund dund gu normal doog a toog di seetaan football. waaw waaye sa waay yow dundoo ba noppi naan ay coupe du monde baak lu ma xamut. ñañ fay dajal ñëpp kenn amu ci problème mu wii ñun doo nga am problème wii ba noppi naan dañu football. waaw man moom bàyyi naa damaa ba. boo bëgg naa futbal lool waaye banaa de danaa seetaan nag ndax xam naa waaye nag moom ay affaire Koulibaly yeeg Chelsea nam ko defee yeeg loolu du ko na bàyyi naa ko. Eh, Liverpool gi bàyyi saajo Mané rek seen mbir lëndëm ji dafa ne bana. <laughs> Eh, gi dem Bayern. bana. Hmm? Sadio Mané mi dem Bayern. waaw banga. Ah, de dama ko yéene jàmm moom ndax barki moom bi mu fubal doon naa ko seetaan waaye daal. Eh. <laughs> daa mel ne xam naa ne yor na gaaf gu baax moom waxuma nag lu xew ci moom waaye. <laughs> gaaf gu baax. gaaf gi baax na de. baax na de ah. gaaf gu baax moom. Hmm. waaw baax. jógele waaye man ay affaire fu ak ah, Cheikh ay affaire football mais dañu dégg euh, Kim Kim Yong président Chine bi la xam Kim Jong di tagg Sadio Mané di ko def di ko waxal lu baax ko yi mel noonu te kooku moom ak doole bi mu am ci àddina. kooku di gone dong sëñ bi bu wéetee di seetaan football comme man. Ah. buy wax ci Sadio Mané loolu du miracle. du miracle de ah, yow. <laughs> Kim Jong lu muy def lu dul seetaan football liggéeyut di. <laughs> rek ah. léegi lan nga gis ne nag euh, ñor na la te bëggoon nga ñu dugg ci dugg ñu ci. am na ñu laax dara ci màggal à mm, daal li ma ñor lépp léegi nag li ma laaj daal ñor na ma ndax mm, loo ma laaj daal yaakaar naa tontu mm. waaw waaye daal football moom. man banaa waaw. supporté wu ma de ay coupe de monde ay ni ma xamul coupe d'Afrique bii jàll def naa ci xaalis bari hmm. laajal ñee dama doon rey ay nag ah. di xoom jam rek hmm. waaw non defar def naa lu ma man ba coupe bi ñëw hmm. man du man du man dong nag ah. ba may bañ gars yi defe ne xam nga réew mi moom sëñ bi kenn ku ne da yaakaar ne yow yow la yow dong la yàllay waxal fekk yàlla waxut ak yow Sénégal moom looloo ko yàq <laughs> dañ ku la mere ne la yàllaa la mere ah. <laughs> sénégalais lay mere ne la yàllaa la mere <laughs> waaw au lieu mu ne la maa la mere de danaan yàlla suñ borom mere na la fekk déedéet <laughs> moo la mere waaye <coughs> da gis ku rey nag daan ne moom man daal ñaan naa ba coupe du monde Afrique bi ñëw waaye man bi mu ñëwee léegi wax tëgg yàlla damaa gisut lu mu soppi ci suñ gii wala dara. Hmm. man moom dafa ñu sàcc sama téléphone sax bi ma ci defoon man. buñ ma ko fayoon wax dëgg yàlla dana baax lool man. dina ah, ci dara man coupe Afrique bi sax gisuma ko sëñ. Hmm. mas nga koo gis man de seen nii rek. foo ko seen. seen ko nii kay laa wax. seen googu man de yaa ma ci tane seenu ma ko. Eh, seen man de te réew moo moo moo kubba ca ko di waar a yem ci man de télé bi laa ko seen. waaye nag ñàkkuma fayda yi moom di ci delluwaat moom. ah <coughs> mais léegi dama am vidéo buy circuler temps yi kenn ku góor koo xam ne que eh, soxnaam xuma coroom daf ko wor mu tas ci réseaux sociaux yi ñuy kii ndax nee na soxna si da doon muuru di muuru ba mel na ku baax fekk bu génn de amaat yeneen far am fu mu ko bloqué ba yooyu ji ñëpp naan xoolal góor bu jantal bi jigéen ñaa ngi koy trahir yu mel noonu quoi léegi xeetu diggante góor ak jigéen ku bëgg a mucc ci loolu ak tamit luy dëkkëral couple yi boo doon joxe ay conseil ne góor na mel nii jigéen na mel nii bu ko defee ki nga àndal na mel nii. mën na dëgg li nga waxoon yëguma ko waxaat ko rek ma dégg. maanaam ku góor la. jabaram la jabaram la. jabar jee doon jàdd ko moom lim ko waa ji lim ko xamee réalité la. mi ngi tas nii li mu ko xamal mooy lépp dafa day muuru rafet. waa ji da koo wax nii walla da ko wane ay vidéo. non non da koo wax. entretien la France la. mais bi mu ko waxee ah, France la ko la la loolu amee. la loolu amee. mais ay sénégalais la waa dara ci Sénégal wala. Ah, waaw maanaam ndaw si sénégalais la wala ndaw si ñoom du Sénégal ñaar ñëpp duñ Sénégal naar mais ndaw si dafa mel ne saaru ah, ibaadu nga naan muuru ibaadu dama lay yëgal foofu dara. cagam naar sax day muuru. muuru muuroo naar ci boppam moo dul diine. <laughs> demal Mourtani naar bi taxaw ci baar bi ni di lay cagatu sax day muuru naar moom xola culture dafa am gis nga naar boppam bii doo ko sénégalais xam nga lu mu fonk ween yi si na jigéen bu nekkoon ci néeg boo nee tëll li muy njëkk def mooy waaw bu doon naara nag danaan këfit ne këpp waaw kil mu culture la rek naar ak diine diine muuru bokkunu waaj daal ndaw si trompé na ko daal. ah loolu ay góor yeneen. waa jeer ba trompé wut moom itam. Hmm. xam nga Sénégal daa am luñ luñ adduna bi sax laay wax. Eh. xeesal. yàlla da koo tere góor tere ko jigéen. Eh. waaye jigéen juy xeesal fii ne kenn du ko wax dara. waaye góor bu xeesalee ñu ne accam. xool ko góor guy xeesal. Hmm. waaye fii ne doxaan. Eh. am jëkk am jabar di doxaan ak am jëkkër ñi lay doxaan. Hmm. yàlla ñaar ñëpp la ko tere. mais fii ne góor guy doxaan dañ naan ah day doxaan waaye jigéen ju ñuy doxaan tam am jëkkër. fii ba Daaru Muxti dañ koy waxtaane baaxut da daa am jëkkër amu far te pourtant même chose même chose voilà hmm. affaire affaire jabar moom da ngay da ngay fexe rek daal xam naa ne xam ne muñ daal ak confiance rek da ci am ci bañ a wax wax yu wax confiance bu day ak muñ bu doy wala question confiance sax ndax xam nga confiance moom maanaam mënoo ko am total ci yenn jigéen ñi hmm. ndax jigéen moom bu dee yàgg ñu baree ko bëggandoo woon hmm. waaw te bi nga ko jotee itam xam nga yàlla bu dénkee dafa am yoo xam neexut a wax waaye lu dul jeex du nettali daanaka maanaam euh, da ngay waaru daal. am lu dama ne jigéen lim àndal. du jeex du nettali góor lim àndal du jeex du nettali. Hmm. moo tax booy seet ba xam tibb nañ ci am tibb ci day naqaree xam. <laughs> waaw euh, tibb nañ ci wala tibbuñu ci day naqaree xam. Hmm. jigéen boo koy yor danga koy yor ci sa personnalité. di ànd ak moom ci personnalité am. waaye bu ci dara desut man gis naa billaahi gis naa koo xam ne bu jabar ji de demee marché ba ñëw da koy woo du jël loxoom di làmb kanam gi ba xam tooy na am déet ma ne ko bu yeggee fii bàyyi ah, bu fekkee jigéen booy ànd ak moom ci personnalité am ngay ànd ak moom hmm. buy ànd ak yow na ànd ak yow ci personnalité hmm. ne da jàpp ne da ngaa mën a sécuriser sexe bi ba ta ba bam lii buy dem marché téye ko ci téyel bi ci kër gi rek comme que moo ko moom buy dem yóbbaale ko daanaka kay sëñ bi war ngeen am dem marché daa am nag sëriñ bu am mag sëriñ bu mag a mag a mag boo xam ne daa am lu xewoon këram. Euh, ci sëriñ murid yi sax la waaye garaawut dama tudd tur wi. waaw daa am ku ñëw di ko jàmbat ne ko daal euh, so moom ñaari bëkk néeg lañ. Mm-hmm. benn bëkk néeg bi dem ci soxna si morom ji daal. fekk mu ne ko nag soxna si daal daa diw da caa dem mu ne ko nag yàgg naa leen a wax ne xam nga comme ñun ñaar nañu xaritoo rek. nga jël sa soxna di ko bàyyeekee. Mm. mu ne ko lu sëñ bi da leen ko tere woon ne ko nag sa jab soxna sii. Mm. téye ko ci say loxo te bàyyi ndaw see sa xarit yi nga koy nga koy kii. Mm. mu lànk ba ba dara xew ca nag mu gis ko mu ne ko nag waxoon naa la ne nga téye leen ndax ñoom seen àjjana da leen jege te kuñ gërëm tàbbal la ci. jigéen waaw jigéen àjjanaam da koo jege te bu kontaanee ci yow tàbbal la ci àjjana ji. déggoo waaw looloo tax nag maanaam comme seen àjjana da leen a jege te bu ñu la gërëmee tàbbal la ci mm-hmm. maanaam da ngay da ngay fexe ba ñu bañ laa gërëm waaw waaye affaire sëy affaire nit la daal mais ay France ak nag fii laa doon defee na ngay wax sax ay yooyu moom euh. wax dëgg yàlla sexe sexe ñoom jàpp ñu ko principe yëg-yëg lañ ko jàppee mm-hmm. waaw waaw non dama sentir sentiruma la yooyu la ñuy wax mm-hmm. affaire sentir nag moom jëm yëmut fenn man ngaa sentir sa doom sax ah ma tax pédophilie ci dëkk waaw non sentir moom bu dee sentir rek la. Hmm. kooku moom problème am na. dafa war a nekk principe. Hmm. voilà ni ngay rombee oto jàmbur xool ko mu rafet lool. Hmm. nga bëgg ko waaye xam nga ne moomoo ko nga man koo romb yi dem. dangay fexe ba jëm ci jigéen ak lépp noonu jigéen boo ko rombee lu mu rafet rafet xam ki nga xam ne moomoo ko da cee war a doy nga jàll. waaw. Ah. waaj daal moom àdduna am tukki na te li gën a metti ci àdduna mooy doxaan. doxaan nit ñi xamuñu ko. Ah. barke Serigne tuubaa góor gu mosoon. Ah. maanaam jub kocc doo doxaan doo amoo soxla ci jigéen parce que nag sëñ bi saakuy suukar yi couleur yi euh, mbuus yi mën nay wuute couleur yi wuute niñ koy faseek ak niñ koy takkeek tool waaye daanaka sëñ bi suukar see moo dàq suukar see daanaka amu ci solo te itam adduna moom bu fekkee pax moo xam ne gasoo ko te mënoo cee def lu koy suul ba mu fees di ci jaay nguur a jëru waaw mm, ànd jar naa dal de ndax pax mi moom wóor na ne la yow gasoo ko te mosoo gis ko ko feesal te doo ci sotti lu ko fees mm. dégg nga da nga ci da nga ci def dal waaye mm. loolu moo ci am solo mais gis nga jigéen bu fekkente ne dangaa nekk ak moom di doxaan mm. li ngay mos ci doxaan gi mu neex yaa koy dundaat ci torture ci kër gi am na ñoo xam ne bu ñuy sangu ji dañuy jël téléphone bi dugal ko ci duus bi pour bañ pour bañ ko ko xool te yow jigéen nooy na euh, la la la Robert Mugabe waxoon euh. nooy nekkee góor sa sexe bi nekkut nekkut bi privé ci moom te sa téléphone bi nga ne bëgg na privé la <laughs> sexe bi kay bu fekkee nit kay bu fekkee sa sexe sax privé ci moom sa téléphone warut a nekk privé ci moom man ana góor ak jigéen nekk ci ni kenn ku ne naan doolaal sama téléphone ndax privé foofu la seytaan naa naa feqe yam nañu waxante dëgg. am na ndaw soo waaj waajoo xam ne ndaw si day anniversaire àll kan a ko wax. àll kan miy jàng xasaayit xaritu kii la nee na ma waaj ji day daw si day anniversaire mu ne ko tey loo bëgg ma defal la mm-hmm. ndaw si ne ko ah mu ne waa mu ne ko ah, fekk ay gaynde dañoo nekk foofu mu ne ko demal ci gaynde yi ñu lekk la waa ji xataraayu wuti gaynde yi ndaw si ko kay eh, taxawal taxawal xam naa ne xam naa ne da bëgg nga ma boo demee gaynde dañ lay lekk waaye bul def loolu léegi aal mu ne ko kon baal dem ci gaynde yi <laughs> Ah, mu ne far baal ma far dem ci gaynde yi rek a xool sama téléphone dëgg yàlla waaw ah. kooku moom téléphone moom moo ko xam ah. euh, ñu tàggatoo nga defal am na jigéen joo xam ne ajjuma jee laa ko recevoir hmm. dafa jël téléphone jëkkër ji hmm. fexe ba def ci enregistrement nga xam ne dafa jo dugal mode lu mu woote da koy déglu hmm. di di déglu saa boo jëkkër ji wàccee mu dem déglu li mu wax tey sànni ko boppam di ko déglu di ko déglu di ko déglu ba benn bis nag mu dégg ci jëkkër jabar jëkkër ji ngoro daal mm-hmm. waaw mu yor audio bi ñëw wan ma ko naan ma léegi day ngoro ma ne ko leen da laa lay ñii nga def ba xam ko ne bis bu ko yëgee ñàkk nga sa sëy bi mm-hmm. kooku ngay siis noonu mooy tëdd ci sa lal ba mm-hmm. di ànd ak sa jëkkër te boo moytuwut maanaam yow àll ba lañ lay football nit tamit doo ko topp ba mu sës voilà nit ànd na jabaram di doxaan di doxaan bañ fay dee kenn kenn kenn kenn yëg xamu ko. Hmm. te nit nag àdduna li metti ci fii ne mooy li nga xam rek. li nga xam waaw. li nga xamul moom lu mu xamul ba garaawut. fii ne nii maanaam bu ñu ci sa jabar ba àdduna yi tukki te ko garaawut di ndax xamoo ko. lim bu ñu ko jëlul dañuy mën a muñ muñ de yomb ndax tàmm na xam na xamuñu ko. ah non loo xamut daal sa waay. Hmm. daal sa boo yoroon fii té paanoog dërëm. Hmm. nit ñëw tegg ci ñaari dërëm dem. jël na sa xaalis da waaye garaawut ndax yëgoo eh. doo ko doo ko xam. voilà adduna dafa am loo xam ne jarul topp. Mm-hmm. lu nekk nga gëstu ko lu nekk nga topp ko lu nekk nga saytu ko. Mm-hmm. loolu baaxul. ci àdduna dafa yàq lu bëree bëree bëree bëree bëri. Mm-hmm. mais li am solo te am solo mooy euh, ñun jigéen dañuy ànd ak moom pour tabax àdduna. ànduñoo ak moom pour di leen sëy. bu doon sëy dong dong dong dong dong góor du takk jabar. sëy rek ko jigéen boo nekkee moom ñaari weer xanaa sëñ bi. léegi doy na te moom daal lu doon sëy dong sëy rek nii tëdd ci lal di sëy mm-hmm. kenn du takk jabar waaye dafa am lu dañoo war fonde àdduna mm-hmm. fonde àdduna nag li koy def mooy personnalité bi nit ki am mm-hmm. voilà day ndax caga la ndax fenkat la ndax njaa mbaraankat la ndax dafa mën a jaxase àdduna ndax dalay taqaleeg say bokk xeet yooyu yëpp ak kuñ yar la ku dal yooyu moo am solo ci jigéen mais ñun bu bu ñuy takkee jabar dañuy xool rek nu mu demee ci wàllu sex waaw nu tubay ji bu solee tubay nu muy mel. nu teint bi mel fekk déedéet loolu du dara. loolu kii la. abiyaas la voilà. jikko ji moo gën lépp muy amee mooy tax nga mën a nekk ak moom. Hmm. ki daq ci àdduna bi bu ngeen àndoon weer bu fekkee daa soof boo métu dootu leen àndati. Hmm. voilà il faut nit ñi di xam loolu booy takk booy booy doxaan. Euh, jigéen pour war koo takk jabar bul topp topp naan ni nii la physique bi mel del xool ba xam ku mën a muñ la kuy tontu la ku reew la dégg nga yooyu ngay xool ba pare voilà parce que benn benn waay waxoon naa ko ko ci jabaram ne ko looy naw ci moom rek bu ngeen àndee ñaari at dootu ci nekk bu dee ween yu taxaw yi ngay wax bu amee doom mu dem hmm. bu dee digg li bu ëmbee digg li day déformé dootu am digg lu baax hmm. kanam gi bakkan bi weng lépp affaire man ko ñii di la romb ñëpp mos nañoo tooy dañoo ay jur yi doom ak problème àdduna yee leen yàq. voilà jërul nga nekk fi tooy na parce que bu woowee da nga koy wàcc kon. <laughs> tooy na nga maire yi nga xam ne que ñu sëy yu yàqu ñu jiñ leen ko daal nga xam ne que parfois kii sëy si parfois seen doom mën na dem sëy ñëwaat te léegi léeg tamit seen ki fi sëy si respect bi nu ko war a jox des. ba sëy bu yàqu ñu jiñ ko goro yi daal xeetu goro yi goro bu amoon loo ci wax lan la ba ndénkaan. maire yu bari ki ñëw ak ki mu fekk. maire yu bari nag ñoo yàq sëy yi. maire yi waaw. maire yëpp. non non loolu de lu baax lañ ci bëgg de. Mm-hmm. waaye xamuñu ne day yàq parce que da ngay gis maire boo xam ne day jur doom ju jigéen dur doom ju góor. Mm-hmm. bu doom ju góor gi ñaani jabar moom 500000 la koy jox te bu ñuy ñaan si doomam 1 million lay laaj. laxante commencé nag waaw seetlu li ma la wax baax sa doom ju jigéen boo koy mayee da nga naan ay millions lañ may jox ak ceenu or ak nangam mm-hmm. te yow sa doom ju góor buy ñaani jabar du yóbbu ceen du yóbbu or ba noppi bëgg indi jabar <laughs> loolu principe bu maire yi dañoo gëm ne ñoom maanaam buñ lay may jabar loole lañ la war laaj waaye boo leen di may jabar nangam mm-hmm. suñ la mayee jabar mu dem dañ naan dugaloo ko fii dugaloo ko fii defaloo ko lii te ñoom seen doom ji takk jabar nekk ci kër gi ñoom deful dara day tax xalaatu ñu naan waaw mu muñal ko borom garab gu ñuul la dana am dara bët bi ñuy xool seen doom nañ ko xool seen goro bi rek mu jeex voilà li ci des mooy nit ngay am doom mu dem takk jabar nga nga fàtte ne moom daa am lu mu ci bëgg nga am ci bëgg maire bi moom bëgg-bëggam lay xool ba jeex ah kii de bëgguma ko man de kii boo bëggu ta sa doom bëgg nag voilà léegi nag da ngay xam ne takko dañ maanaam ki kii takk daa am lu bëgg voilà léeg-léeg nga dem lijjanti ba am soxna su mool soo xam ne mënoo koo muñ ba noppi sëñ bi maire bi ne la kii neexuma dafiy génn problème bu rëy nar a am rek <laughs> ñoom moom dañuy yàq kër yi liñ ci jublu nag lu ci gën a bëree bëri gis nga àdduna ab ànd ab ànd comprendre rante rek la voilà dégg nga jigéen tamit bu fekkee dañ koo yor kër ndeyam ak baayam ba mu ne faaj nga takk ko kenn yarloo wu la dañ laa yorloo ndax bu de luñ loo ca fekkut doo ko ca dindi dañ laa yorloo mais yarlootuñ la ndax ku ne faaj lañ la jox voilà jigéen ku ko takk dañ la ko yorloo waaye kenn yarloowu la ko loolu moo am solo ñii nag dañuy yor jabar ba koy yar naan daa reew ak daa xamut daa nangam daa nangam yoral rek waaw waaw dégg nga waaw ndax bu sa yaay reewoon nga muñ ko bu sa baay reewoon nga muñ ko bu sa jabar reewee muñal rek waaw ah? dégg ko kon Cheikh Bara kon xewal dikk loraak nag Cheikh Bara Ndiaye lañ doon am ci spécial euh, gërëm nañ équipe technique moom docteur Wade Baye Moussa Diop Petit Sow Tektal TV xewal dikk loraak nag jaajëf